dugal nga sa time à vous Amis Internet, Mac TV, nous revoilà ici au stade municipal de Anne-Belair euh, pour cette deuxième affiche euh, qui va opposer l'ASC Kergui. Franchement, une équipe qu'on voit très décidée aujourd'hui qui va affronter l'ogre. l'équipe la plus titrée de Anne Belair, l'équipe qui a fait les beaux jours de Anne Belair. boo ko dégloo di nga xam ban équipe laa bëgg wax ndax supporters yi commencé nañ ko way nee nañ connais-tu mon beau village qui s'appelle ASC Mbaxal borom quatorze yi kon boog Mbaxal buy génn duñu ay géwél de waaye dinañ nekk géwél bés boobu parce que tey maanaam Hann Bel-Air bu fi régional duggee Mbaxal la ko fi njëkk a dugal Hann bel bu fi départemental duggee max la ko fi njëkk a def dugal ñoom sànn daal di jël héritage bi daal di koy bàyyi ak seen i doom tey ñu ñëw si terrain bi nday sànn xam nga danga nga naan ne yaram day daw man su ma gisee saada nday sànn doomu suuf sama yaram day daw papa war a papa war a war a toog di reporter doom mais loolu loolu beneen affaire la mais tey match bi mooy li ma la waxoon sànq rek kër gi fi mu toll nii première finale lay joué balaa finale ndax bu bëggee dem ci final bu mag ba il faut mu gagné finale bi ndax premier match am dafa génn sant doo ko 3-0 te xam nga ni première sortie moom souvent da ngay def faux pas mais nag le problème qui se pose c'est que l'ASC Keur Gui en face de lui une l'ogre de Hann Bel-Air xam nga luy ogre balañ bi balañ bi mooy ogre mooy kii bu ngand boobu nu mu doon sax dafay bu ngand boobu balañ balañ mooy defee bu ngand boobu nga xamante ne amoo foo ko jaar. muy kii di ma woo na ma may rek ba ci kanam fi mu toll nii dalagu ma ko suuxa nee ko fi mu toll nii <laughs> dañoo. ay millions la jël dañoo nekk ci lu très sérieux mais xam nga li dafa neex. an bële dafa am ay équipe yu def ay ay jaloore ku ci mel ni Mbaxal Walidaan Kasanka Montagne si ndeysaan xoolal Ibrahima Sall ñaari xale yi mu indi ci terrain bi lii daw na yaram suuxa ndeysaan lii buñ ko xoolee rek maanaam woo nañ mën a jël lépp li nga xamante ne. maanaam mooy violence wala lépp li nga xamante ne day yàq ñu tegee ko ne da xool xale yi ndaw yi ndeysaan xool heure bi jot ñu ngi si terrain bi ndeysaan dañ koo bëgg dañoo bëgg a seetaan seen mag yi ñëw fekkee feet bi ndeysaan ni la war a su ne parce que tamit ba final ni la war a demee ndaxte bu dara jàmm am ak salaam xale dañuy ñëw seetaan si mag ñi dañuy ñëw seetaan si ñëpp dañuy ñëw seetaan si parce que stade municipal bi ma ngi fiy gis lu ma gëj a gis maa ngi fi gis ay mag yi nga xamante ne bi nga leen gëj a gis ci nawet mais kenn xamul ban année la kon boog yàlla na jàmm yàgg ay sa gi ay sa mbaxal ci fair play ci yar ci teggin ci discipline que le meilleur gagne suuxa dëgg la Ali maa ngi nuyu ñëpp ah, di ziar ñëpp ah, di wax ni ñu ngi jóge ci bés bu am solo muy bésu euh, gàmmu ñu ñaan yàlla rek lépp lu ñu fa ñaan rek yàlla nañ ko suñu borom defal di ko ñaanal Sénégal yëpp eh, mais nag di ko ñaanal am belleer yëpp di wax Ali comme ni nga ko waxee rek euh, dañu ñëwaat ci bës bu mag nga xamante ni tey euh, mun nga ni sax yaram daw na parce que kii di kër gi kii di laay see mbaxal tey ñu ñëw fii di jouer si match qualification match qualification dafa metti kon nag jàpp naa ni tey ñaari équipe yëpp euh, gàcce ngaa laama parce que liggéey rek moo am solo te jàpp naa ni ñaari équipe yëpp liggéey nañu tey jii nag bu kenn naaw parce que ku naagu rek di nga juub li ñu war def rek mooy ku ci nekk ci ñoom rek xam ni tey bés bi li la ci xaar lan la liñ si war a def lan la liñ la yabee lan la lan nga war a ñëwee lool lu am solo la kon jàpp naa ne Ali bés bi kenn du ko fooy bés bu qualification la mbaxal ba fi may waxee ak yow nii qualifié gul foog mu gagné tey pour qualifier euh, kër gi tey foog mu gagné pour mën a dugaat ci loo bi kon jàpp naa ni euh, fi may waxee ak yow nii nag ñu ngi ci stade municipal bu Hann Bel-Air ci diggante kër gi ak ñi nga xamante ni moom mooy xale yu mbaxal yi jàpp naa ni fi may wax yow nii. Ah, daanaka li ñuy wax yaram daw na parce que boo xoolee ci rond central bi ñu ngi ciy gis ñaari tuut tànk yu tuuti ñi suñuy sët nga xamante ni tey jii su fekkoon dañu nekkoon ci yeneen stade yi duñ ko mën a def waaye fii lañ ko mën a defee kon nañ ci war yar ak teggin ñu jàpp ni rek wax dëgg yàlla xale yi si lañ bokk ñoom ci bés bi lañu bokk ñu leen di fob ñu ngi leen di téye si loxo waaye ci bés bi lañ bokk nañ leen bàyyi xel mu bàyyi leen xel nag mooy ñu fexe di fi ci yar ak teggin di fexe match yëpp di fi àggee ci yar ak teggin kon jàpp naa ni ah, loolu dina si am solo daañu mën a di indi xale yi di leen fopp di leen di naa indaale terrain loolu yaram daw na tey aali trop ci région centrale bi fi may waxe yag gis naa ci ay mag ña nga xamante ni dëgg yàlla gëjoon naa leen gis ci stade bi jàpp naa ni ah, tey nag dina nekk bés bu daw yaram dina nekk bés bu am solo dina nekk bés ba nga xamante ni histoire da koy bind ah, lépp da koy bind sport da koy bind kon jàpp naa ni ah, ci diggante ah, ah, gi nga xamante ni moom mooy xale yu mbaxal yi ñu ngi sol ay bleu blanc comme seen tenue traditionnelle bi ñu daan sol rek moom lañu solaat ci kaw bleu ci suuf yëpp weex ñi nga xamante tey jii ñoom ñooy eh, xale yi ñi nga xamee ñoom ñooy xale kër gi ñu ngi sol seen tenue traditionnelle ñoom ci kaw dafa weex am lu bleu ci suuf lépp bleu kon jàpp naa ni ñaari équipe yi am na lu leen boole. ñaari équipe bi yàgg nañ di daje ci bés yu mel nii ñaari équipe yëpp jàpp naa ni tey jii li leen war tey kenn warul def erreur kenn amul droit def erreur di wax ni daal Ali tey yaram daw na dëgg dëgg dëgg dëgg yaram daw na liñ koy waxee tey yaram daw na ah tey jii Ali mat yu mel ni daf may rappelé lu bari bari tey jii xoolal mag ñi nga xamante ni ñu ngi daan ñëw stade mënatuñ ñëw stade Mak TV mu ngi def liggéey bu am solo tey jii boo demee ci yenn quartier yi mag ñi nga xamee seen tànk neexatul mag ñi nga xamee ni ngi toog si puus-puus mag ñi nga xamante ni ah bëggoon nañu football mais seen jot mayatu leen ko wala seen doole mayatu leen ko tey ñu toog seetaan en direct jàpp naa loolu lu am solo la lu nga xamante ni wax dëgg yàlla yaram daw ñu trop Ali fi may waxe yow ni maa ngi lay uh, joxaat antenne bi Ali nga dawal tuuti ah naa ah, may wax yow nii ah ci ñi nga xamante ni moom mooy xale yi mbaxal yi ak xale yi ah, kër gi. wax dëgg yàlla at bi bi ah, mu ngi woote jàpp naa ne Ali ah, match bi mu ngi waaj a ma jox la nga nga demal. Attention, l'arbitre ne va pas tarder à siffler le coup d'avant de cette rencontre qui oppose l'ASC Mbaxal à l'ASC Kergui ici, le champion en titre, l'ASC Mbaxal de la zone 7A, qui va faire sa deuxième sortie ici au stade municipal de Hann Bel-Air. L'ASC Mbaxal, toutes ses sorties sont entendues. Franchement, l'ASC, comme je le dis souvent, la plus titrée de Hann bel bi nga xamante ne mag ñi ñoo ñëw jël héritage bi daal di koy jox xale yi xoolal man ndeysaan Pa Omar Pa Omar numéro 9 ASC Mbaxal xale bi gàcce ngalaama boo xoolee équipe bu Mbaxal bi franchement une équipe très jeune rajeunie avec des jeunes franchement ñi am dañuy compétir boole wu ñu dara ki wax waaye kër gi ndeysaan ñoom ñëw nañ ne final incha allah la ñuy fubal parce que Mbaxal équipe bu mag la waaye lépp lu ñu am nañ ko si def. waaye nag kon boog ah préparé leen ndax xam nañ ni moom bu soobee yàlla du yemb ndax ki ngeen di taseen lii dafa nekk équipe bi nga xamante ne moo def les beaux jours de Hann Bel-Air quatorze coupes la fi dugal départemental bu ko Hann Bel-Air gisee mbaxala ko fi njëkk a dugal régional bu ko Hann Bel-Air gisee mbaxala ko fi njëkk a dugal kon boog mbaxal dafa def ay jaloore mbaxal football ndeysaan ba ñu yóbbu leen Gambie ñu représenté senegal moog jànkalaar xam nga ne loolu histoire la loolu sama waa ji na ci ñëw léegi léegi léegi kon boo gàcce ngalaama ASC bu mag bi franchement di jaajëfal mbaxal mënoo ko wax te doo fàttaliku père Moustapha Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm xëy ko àjjana franchement euh, Amdi Sarr yàlla leen yàlla yërëm entraîneur bu mag boobu nga xam ne doon encadré doomu Hann Bel-Air franchement mbaxal Idrissa yàlla na ko yàlla yërëm franchement ñooñu ay doomu mbaxal lañu woon nit ñi nga xamante ne vraiment ils ont fait les beaux jours de l'ASC mbaxal kon bokk mbaxal bu génnee franchement dëkkay kontaan ndaxte équipe bii bu ñu respecté Hann bel ci football ASC mbaxal bokk na ci ñi tax. dëgg la Ali comme ni nga koy waxee rek ah, gis nga ñooñu ngay fàttaliku kenn mënu leen fàtt ah, ku ci mel ni ñoom Daouda Fall ah, ñoom Ousmane Sarr Gueye xam nga ñooñu kenn mënu leen fàtte ku ci mel ni ñoom Aziz Thiongane xam nga ñooñu kenn mun leen fàtte ku ci mel ni ñoom Masser Diop ñooñu kenn mënu leen fàtte nga nga xamante ni tey jii. Ah, ku ci mel ni le grand entraîneur muy Amdi Sarr di doomu yaraax yàgg yóbbu yaraax fu nekk ñooñu kenn mun leen fàtte di wax rek ni wax dëgg yàlla ah, bés bi ah, nekk na bés bu daw yaram tey fii nga xamante ni moom mooy stade municipal bu Hann jàpp naa ne nag tey jii di nga fi gis match bu rëy rëy rëy di nga fi gis match bu ama am solo ci diggante ñaari équipe yi nga xameen tey li leen war yëpp mooy jéem a qualifier tey kon jàpp naa ni tey tey di wax ni rek. Euh, tey euh, ku ci mel ni euh, ñoom jigéen ñu am solo yi nga xamante ni gunge woon nañu ay say mbaxal ki nga xamante ni moom ñooy ñoom dabañang ñoom nday baayam saar ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu bari bari bari bari tey am na ñi nga xamante ni nekkatuñ fi Ali loolu lu daw yaram la jàpp naa ni tey soo mase xool bàkku mbaxal bi nga xamante ni daan nañ ko bàkku muy mag ñu njëkk ja ah loolu dafa am solo ci jigéen ñi ko daan def nga xamee suñ ko mooy bisimilah ñoo ngi soog a door xam nga ñu tàggu yaay tàggu baay ñu tàggu bàyyi tàggu yaay xam nga loolu daf may rappelé lu bëri bëri ci équipe bu mbaxal bi moo tax équipe bu am histoire dafa jar di téye si dëkk ku ci mel ni ay kasanka ku ci mel ni ñoom mbaxal ku ci mel ni ah, ay ay walidaan xam nga ñooñu équipe la ya nga xamante ni dañu jar a téye si dëkk di leen jox cër parce que dañoo am fu ñu jëlee équipe bi eh, dëkk bi yóbbu ko fu sori sori kon gàcce ngaalaama équipe yooyu. gàcce ngalaama équipe yooyu ku ci mel ni Mbaxal ku ci mel ni Kasanka ku ci mel ni day ndeysaan ah équipe yooyu noonu ku ci mel ni ay Montagne 6 franchement ay équipe yu mag lañ kon mbàkk euh, bi ñu fi wax léegi suuxa dafa nekk lu neex a neex parce que yéen bi ngeen daan fubal ñun bi ñu nekkee ay ndaw daan seetaan dañ doon dégg ñu naan bisimilah gi ngi soog a door wala ay ñu naan raay leen doom doom yombul ndeyam xale yi di ñuy supporter joueurs yi nekk si terrain bi di fubal mais man li ma jaaxal ci génération bu bees bi. ñoom seen supporter yi dafa doy waar a ngay jékki-jékki rek daal di dégg ay teel a ñuy teel a ñuy teel ñuy bañ a yegg foofu noonu ñuy yegg xam nga ni loolu noonu loolu noonu moom doxul loolu nañ ko bàyyi ay nekk si terrain bi lan ay teel a ñuy teel a ñuy teel a ñuy lan lu ñu bëgg a lan lu ñu bëgg a def nañ bàyyi yooyu tey supporter di woyal joueurs yi comme waa Allez Casa ni koy defee nekk si tribune bi di woy di fecc ba match bi jeex motiver sa équipe waaye nekk fii di di teel a ñuy lekk ah waaye teel a ñuy war na jóge ci terrain yi <laughs> tey lañu moom doxalul doxalul dëkk moom. la dëgg la Ali xam nga comme ni nga koy waxee rek xam nga bu njëkkoon civilisation bi dafa xawoon bari trop ci mag ñi mag ñi rusoon nañu def yenn yi rusoon nañ ah, di wax yenn yi loolu jàpp naa ni toppul xale yi waaye toppoon na mag ñi parce que tey bu match masaan jeex su ma la waxee ni la daan nañ jugee ah, ci côté Forbe match jeex équipe yëpp ki ki ak ki gagné yëpp ñoom ñaari équipe yëpp ñoom ñooy ànd di doxandoo di werentandoo ba agsi fi ñu agsi dara du jub kenn du wax lu ñaaw kon jàpp naa ne loolu daf may marqué ci euh, jeune am na am na ku ma ne Ali yow foo dëkk xam naa li may tagg mbaxal moo tax mais ku def lu baax am lu baax ku def jaloora ñu wax ko suñu dëkk en Bel Air bu ñu ko xamee mbaxal moo doon génn fii di football ay régional départemental di indi ay ndam fii ci en Bel Air euh, am na ku ne Ali yow foo dëkk Mouhamed Diop Ali mi ngi dëkk en Bel man en Bel Air laa dëkk man ñëpp laa faral an ba leer ñëpp équipe yëpp benn lañ ci man o oh, ma man fi ma fi ma faraluma kenn ñëpp yem man su football laay supporter je suis pour le beau jeu équipe yi animé équipe yi fair play équipe yi indi ambiance terrain équipe yi nga xamante ne ñi ngi fii di montrer les les bons exemples man ñooñu laa faral franchement Hann bel la laa dëkk man foo ma laajee fu ma dëkk man moi je suis habitant de Hann bel man bokkuma benn quartier am belleer laa dëkk kon boog na ko ñëpp xamee noonu suuxa waaw mais nag ku fi def lu rëy nag bu soobee yàlla ak yonent bi nañ ko wax dëgg la Ali comme ni nga koy waxee rek loolu du mën a ñàkk am na nit ñi moom tamit des fois foog ñuy laaj ah, yi ñu bëgg a lu ñu bëgg a def foog ñu def ko mais jàpp naa ne équipe bu kër gi ah, jàpp naa ne équipe bu ma marqué la bu ñu fiy bëgg a yàgg bu ñu fiy bëgg am ay bés yu bari bari bari ah, jàpp naa ne nag ci diggante daaw ak ren laa gis seen liggéey sax xaw a sooxe par rapport ak équipe yi nga xamante daan nañ ko indi daan nañ indi ay équipe yu mag a mag a mag équipe ya nga xamante ne nii pour nga gañee leen ci compétition bi dina metti trop trop trop trop parce que dañu nekkoon ay xale ya nga xam ne dañu mënoon football di ñu jàppee ballon bi dañuy jouer suñ ko perte dañ koy wuti di def euh, la nga xamante ni moom la football laaj yëpp moo tax ay jamono euh, pour nga gagné leen fii dina nekk lu méttee méttee méttee muy équipe bu kër gi di leen wax ni chapeau équipe bu kër gi wax ni man équipe ba nga xamante ni. dama ko mas a jox cër parce que dafa bokk ci équipe ya nga xamante ni ah, bu ñu jàpp ni du équipe bu mag équipe bu mag la parce que bi fi juddoog léegi moo mag équipe yu bëri bëri bari kon nag jàpp naa ni ah, tey jii ah, dina nekk bés bu ala dawme dina nekk bés ba nga xamante ni nii ci ñaar équipe yëpp bés la bu am solo jàpp naa ne Ali tey jii yaram dina daw lool lool lool lool di wax ni tey jii tey jii xam nga jeunesse dafa am solo xoola ñaari équipe yëpp. ñoo bokk benn jeunesse ay xale lañ xamante nañ seen biir ñoom ñooy organiser di jouer ay tournois seen biir ñoom ñoom ñooy jouer li nga xamante ni moom mooy ay ay ay ay mbir yu doy waar xam nga Ali lii dafa neex xoola tout tànk yi ah su ñu mënee ñëw ci estade bi c'est parce que jàmm moo am kon yàlla ñu yàlla defal jàmm. yàlla nañu yàlla defal jàmm xoola xoola arbitre bi nu mu rafetee xoola xale yi nu ñuy ñëwee dox si terrain bi nga xamante ni tey ñii dañ leen sóoraale. parce que ñooyu moom i terrain bi ëllëg seen terrain lay doon ëllëg nañ leen jàppale téel leen terrain bi téye ba nga xamee ni moo tax sama classe gi yëpp di si sonn di yëkkati mbuus yi di for di nettoyer parce que boo gisee ma sonn ci mooy jeunesse bi ñëw ëllëg ñu fekk fi dara lañuy ñuy ñaan yàlla loolu balaa ñuy dem retraite ñu jàppale leen ko loolu rek moo tax ñu siy sonn Ali kon gàcce ngaa laa ma yow it Mak TV ca kaw ca kanam fi nga yóbbu dëkk bi. neex na en tout cas bi pare na na leen préparé leen aja leen. nee na ñëpp jóg une minute de silence bi ndeysaan mooy hommage arbitre boobu noonu nga xamante ne dafa gaañu fan yi passé ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana une minute de silence arbitre bi nga xamante ne moo gaañu samedi bi passé ci testu coupeur boobu mu doon def ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana waaw match bi mi ngi waaj a commencé luy jot jot na gannaaw dee gi fi mu toll nii kër gi ma gis ni suuxa tey ñëw ñu fii dee pour pour seetaan déedéet kër gi ma gis suuxa nag bu ma xal di football dama seet da ngay am pression. non non bal bi dem na ah jour ma xal bi doon na ko ji na ko bal baa ngi dem le ballon est récupéré par le gardien de l'ASC kër gi attention en tout cas il le donne à son axe central sa joue ça joue il a donné le ballon au milieu de terrain il récupère il se retourne. Attention, il lui remet le ballon, ça joue le ballon pour le capitaine récupéré par le joueur de l'ASM Barral et il obtient une faute. Je vous l'ai dit, une équipe bu jar a bàyyi xel parce que ASM Barral borom 14 coupe du équipe bu ndaw ASM Barral équipe bu mag la kon boo képp ku muy dajal bu yóbboo nga concentré wu ba 99 minutes di jeex bal baa ngi daw dugal na ko en profondeur récupéré par le défenseur de l'ASC Keur Gui une ouverture sur le côté gauche mais il trouve l'arrière de l'ASM Barral ça joue à terre. Attention, un lon ballon contré par le joueur de l'ASC Kergui et le ballon est sorti en touche. Round d'observation ASC Mbaxal ñëw na observé wul dara dafa ñëw rek bëgg tegu ci kaw waa ji waa ji nag nee na ko nag du ma ko nangu parce que sama final damaa war a football ay final yu bëri ndax match bi il faut mu génn ci te ci génnee si Mbaxal mii nii après day dem tasante ki nga xamante ne mooy mooy mbooloo ah te day gën a metti bal baa ngi daw waa Mbaxal ñoo ko récupéré perdu récupéré Attention, le ballon dans les pieds du capitaine de l'ASC Kergui, ça temporise. Attention, il donne à l'ASC Kergui. Sourou Kergui tey lu mu indi arbitre bi may na ko faute Sourou Kergui commencement bi ñu ngi wane seen bopp lu mu indi Sourou équipe bi loo si gis gis nga ci gis wala gisagoo ci changement wala ñu xaar ci kanam. dëgg la Ali gis nga moom laa lay wax ni la match qualification du yomb. équipe bu kër gi bi ñu ñëw yëpp lan leen wax nañ leen li leen wax tey match bi li leen siy xaar yëpp wax nañ leen ko ah seen i mag ñi ñi nga xamee ñoom ñoo leen yor xam nañu football xam nañ ni li ñu war a def xam nañ ni buñ jëmee ci yoon bu mel nii xam nañ bu ñuy ah, dajeeg équipe bu mag ci match qualification loolu yëpp xale yi ñëwaale nañ ko wax nañ leen ko waaye Ali li ma gisugum ci bu kër gi gis naa ci benn changement de gis naa ci changement de hmm. gis naa ci ay xale yu mën a football gis naa ci ay xale yu mën a football moo tax nag ma ne équipe mbaxal bi nañu def attention bu baax a baax a baax a baax nañu def attention parce que Euh, match qualification boo koy joué dafa am beneen xar kanam booy indi te jàpp naa ne ñoom indi nañu xar kanam bu mel noonu muy laay see kër gi ki nga xamante ne mooy laay see mbaxal tamit xamaguñu parce que dara xewagul dara xewagul waaye gis nañ ni ci bërëb bi équipe bu kër gi indi na jeu bu nga xamante ni commencé nañu ñeme ballon bi téye ko di jouer c'est ça football jàpp naa ni tey euh, seen capitaine bi nag euh, bu kër gi moo sol numéro 10 bi Euh, moo xaw a gaañu noonu ñu ko doon seet euh, euh, gaañu gaañu bu nga xamante ni nii bu lese la mu ngi noonu dox di génn jàpp naa ni ci diggante mbaxal ak ñi nga xamante ni mooy xale yi kër gi fi may wax yow nii ñu ngi doog a démarrer ci quelques simili rek waa kër gi ñoo yor ballon bi noonu seen góol moo ko yor di ko waaj a mu koy jéem a dégager attention jàpp naa ni ñaari équipe yëpp. Euh, tey jii am nañu taxawaay bu baax a baax a baax a baax a baax euh, waa kër gi ñoo dégagé noonu ballon bi noonu ci seen côté gauche ñu renversé ko noonu attention ñuy def euh, waaye yaa corner corner pour laay say kër gi Ali corner mu lay wan bu kër gi commencé na dugg ci match bi ñi nga xam nag mooy équipe bu mbaxal bi nañu def attention bu baax a baax a baax parce que ñu ngi joué équipe ba nga xamante ni nii jàpp naa ni équipe la ba nga xamante ni nii euh, neexul jouer ci match qualification parce que mu mën a football lañu ñoo yor ballon bi noonu ñoo ko renversé waaye waa mbaxal ñoo ko dégagé nu ñuy def attention nu ñuy def waa kër gi ñoo yor ballon bi noonu attention Ali heureusement heureusement Ali euh, équipe bu kër gi commencé na pousse commencé na pousse ñi nga xamante ni nag mooy défense mbaxal bi a ah, dama gis défense bi dafa xaw changé tey par rapport ak euh, défense bi ñu daan indi dama xool ni ci diggante Mbaye Diop ak saada ñoo daan joué ci ak central bi euh, ci côté droit bi ñu indi woon fa Ahmed mais tey dama gis Ahmed moo avancé comme excentré côté droit saada moo ñëw. Euh, arrière droit euh, ñi nga ñu indi beneen ak central ba nga xamee mu ngi doog a ñëw ak Mbaye Diop euh, jàpp naa ni ak Ibou mooy jouer à gauche noonu la ñuy xale yi démarré ñi nga xamante ni mooy waa kër gi ñoo yor ballon bi noonu ni ñuy def ñu ngi jéem a démarré attention ñu ngi jéem a joxante ballon bi am Ndiaye indi Diop am Diop indi Ndiaye waa Mbaxal yi nañ ko ku ko récupéré ñu ngi dem attention ñu ngi dem attention ñu ngi koy joxante am di moo yor ballon bi noonu am di nu muy def am di nu muy ñu ngi koy joxante ñu ngi koy joxante am jaay indi Diop ñu jox ko ki nga xamante ni ah, moom mooy ah, seen numéro 2 bi mu renversé ko ci mbay mbay nu muy def ñu renversé ko waaye ñi nga xam ne waaye waa kër gi récupéré nañ ko me y' a faute Ali ñaari équipe yi ah, dugg nañ ci match bi nag match bi commencé na commencé jug ñaari équipe yi. Euh, ku ci nekk xool na sa morom nattal na sa morom léegi nag li nga war a def mooy dugg ci match bi xale yi commencé nañ dugg ci match bi waa kër gi ñoo yor ballon bi noonu seen numéro douze mu dégagé ko ci kaw kaw muy benn coup franc ni ñuy yi ñu ngi koy jéem a génne moo ko dégagé Sada moo ko dégagé rapidement ci côté ci kaw a kaw waaw ki nga xam ne mooy Yirim moo ko jéem a dévier Assane moo yor récupéré ballon bi noonu mu jox ko Amdi Amdi nu mu ngi dem Amdi mu renversé ko ci côté droit bi si Sada le capitaine de l'équipe de l'ASC Mbaxal mu jox ko ki nga xam ne mooy Seydina Mohamed Mohamed na ko perte rapidement attention waa kër gi récupéré nañ ko ñi dem à gauche à droite ah ñi nga xam ne xale mbaxal yi récupéré ko mooy Assane Assane moo ko récupéré jox Yirim Yirim nu muy def mu récupéré ko ah, jox ki nga xam mooy arrière gauche ah, le numéro trois ñu dem attention mu jox le numéro huit mu renversé ko ci beneen côté bi mais ballon bi génn na tous Ali équipe yi nañu jug xale yi commencé nañ di tàng. ñu commencé tàng nag gis nga dafay kii waaye gis naa benn jour kër gi commencé na tëdd na noonu ñu ko euh, ñu commencé ko xool ali rythme bi bu commencé jug rek nga xamee ni xale mooy football terrain bi dafa yaatu xale yi wane ñu ñu wane seen bopp entraînement physiquement da ngay taxaw pour mën a ñëw boo refulee rek euh, dina metti torop ah, jàpp naa ne fi may wax ak yow nii ali euh, tey ci diggante kër gi ak mbaxal jàpp naa ni fi may wax ak yow nii ah, yaram daw na torop ku ci mel ni équipe bu kër gi ku ci mel ni équipe bu mbaxal yàgg nañu di daje ci ay rendez-vous yu mel ni ci ay match nawetaan ci match coupe ci match championnat yàgg nañ di daje kon jàpp naa ni gàcce ngaalaama kër gi waaye gàcce ngaalaama Laye Mbaxal. Laye Mbaxal champion en titre qui a battu l'année dernière l'ASC euh, Déggo Maris par 4 buts à 1 l'ASC kër gi finalam bi mu mujj football est-ce que nekkul contre Santhi mooy bi ko Santhi di gagné fële ci stade Alassane deux buts à un waaw sant yaakaar naa ni boobu mooy premier kubam kon bokk euh, ASC kër gi tamit ASC bu mag la Raoul Mendy jaar na fa Raoul mooy euh, attaquant euh, Sénégal beach soccer bi jaar na kër gi vraiment Raoul jaar na fa kon boo kër gi tamit du équipe bu ndaw parce que boo gisee premier match bi ni ñu ñëwee def faux pas ñu daal di leen dóor 3-0 match bi bi ñu ah li ñu wanee gum ñi ngi wane nañ beneen xarkanam kanam et c'est ça qu'on attend des équipes parce que erreur day am mais deuxième match bi boo ñëwee da nga war a wane beneen visage da nga war am noo taxawee wane na kat ah juumte am na juum naa ndax nañ ma dugal ma mais dinaa defarwaat kon boog quoi qu'on puisse dire l'ASC Keur Gui est là aujourd'hui parce que boo gisee match bi am na engagement d'entrée de jeu ñaari équipe yi attention perte de ballon de Amdi Sarr ballon récupéré par le numéro 14 de la Sécurité qui ouvre une pour le numéro 7 et il centre en retrait le ballon dans les portiers du bras de l'ASC Mbaxal faut faire gaffe à ces de ballon parce que l'ASC Keur dafa mel ni tey indi nañ ay joueurs yi nga xamante ne i dañuy daw ci côté yi sur le ballon dégagé sur le côté droit de l'ASC Mbaxal il a touche en faveur de l'ASC Kër gi de l'ASC Mbaxal toujours en tout cas il faut respecter son adversaire parce que équipe bu ndaw amatul fii ci commune bu Hann Bel-Air la touche effectuée poussée et le la faute en faveur de l'ASC Kër gi franchement quoi qu'on puisse dire la qu'on puisse Kër gi est en train de résister face aux champions en titre ici au stade municipal de Hann bel après huit minutes de jeu Nous, nous savons que ce match sera pas facile. Un long dégagement sur la tête du défenseur de l'ASM Barral, encore récupéré par euh, Sada à l'arrière droit. Et il a été poussé et il obtient une faute. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, nous savons que ces deux équipes, sont en train de pousser sur eux. Et l'ASM Barral doit se concentrer le maximum possible face à cette équipe qui joue son va-tout. Attention, oh, le ballon dégagé par le défenseur de l'ASC Une tête du joueur de l'ASC Mbaxal. Ça joue, c'est pas fini. Le ballon récupéré sur le côté gauche. Et l'arbitre siffle une faute. en faveur de l'ASC Keur Gui. L'arbitre siffle une très concentré, très organisé. Franchement, il joue avec beaucoup de prudence. Ça joue. Attention, débordement. Le ballon récupéré par l'arrière gauche. Le numéro 3, je crois que c'est Ibougueï. Ibougueï, il talonne pour son défenseur. Quelle jolie geste. Et non, c'est pas Ibougueï, c'est qui Goutia. Et Ibougueï n'y a te Goutia moo ñëw dañoo xawoon niroo parce que kii bu ñëwee numéro 3 bi sol waaw tey Goutia lañ indi waaw l'arrière gauche Goutia ndeysaan daaw ñëwul attention bal baa ngi daw am di jëlati na ko au fondeur pour Amor une deux le ballon remis sur son gardien par le numéro 12 fait faire attention le gardien qui dégage livre son dégagement contrôle la tête le numéro 31 c'est pas attention il va il contrôle il va frapper et il marque oh, le premier but oh, le premier but de Robert Madiba Assane Sango le numéro 10 je l'avais dit aujourd'hui lombe si kaay ngay dugg parce que Max Pro la jaar du ngay Max Pro bu bañee nee naa ko tey nee naa ko tey lombe si kaay mu dugg daa ñëw ñu jox ko ay kaas jox ko ay dàll jox ko ay prothèse tibia jox ko ay ba ne ko suba ma ne ko tey li ngay indi Max Pro xamee ko dëgg la Ali xam nga mag sport dafay jik xale yi ah, jàpp naa ne Ali ah, mooy wax rek équipe bu mbaxal bi bi ñu joué ci quelques simili rek la dugal ci bitam bu njëkk ñu koy wax Assane le numéro 10 ah, moo tey jii gis nga bokk na ci xale yi nga xamante ni nekkoon na ci équipe bu ESV bi di liggéey moo tax compétition dafa am solo ah, ci diggante mbaxal nag ak ñi nga xamante ni moom mooy xale yaa ah, kër gi laay seen mbaxal moo dugal seen première bi noonu ci Assane waa kër gi ñoo yor ballon bi noonu ñu ngi koy jéem a doxal ci côté gauche côté droit Goutia moo ko dégagé rapidement mais y a tey jii ku fi ñëw. sa yaram dina daw trop dina ma rappeler Bouna Mbass meilleur attaquant bi nga xamee ni moom moo nekkoon ah, ci kii dina ma rappel ki nga xamante ni ah, moom mooy ah, Bossis ñu koy wax xam nga Daara Diaw mooy mooy meilleur meilleur numéro dix de tous les temps kon jàpp naa ne tey su ñëwee ni Assane tey moo ñëw sol numéro diis dugal bitu mbaxal bi daf may fàttaliku ku mel ni ñoom Daara daf may fàttaliku ku mel ni ñoom Ousmane Thiongaan daf may fàttaliku ku mel ni ñoom Mbaye Sall ñooñu kenn mënu leen fàtte moo tey yi mooy ah vraiment euh, doy na waar ñu wax ni waa kër gi ñoo yeb ko franc bi noonu attention ñu dégager ko heureusement heureusement heureusement Ali ah attention Ali Euh, dugal kër gi bii taxul nga ni match bi jeex na attention nañu def attention. l'ASC Keur Gui n'a pas encore dit son dernier mot l'ASC Keur Gui si benn relance manquée de son gardien. Ah c'est ça mooy li ma doon wax sànq góolu kii euh, góolu kii bi góol bi doon génn nu mu tëddi sax góolu euh, jant bi. parce que gardien yi pour ñu def yenn relance yi il ñu gaaw parce que équipe du ñu maye dara arbitre bi nee na amul dara regarde la seen mbaxal le gardien s'est tout à l'heure et bal bi si kaay day dugg dégagé par le numéro 15 Mbaye Diop le ballon le ballon récupéré par le joueur de laay seen mbaxal il y va attention ça joue et il obtient une faute il Khadim le, le de de ISB oui le numéro 6 on reconnaît compétition kese moo wóor xale yi nii boo xoolee xam ne anam yëpp dañuy compétir moo tax lu situation métti métti métti xelu supporters yi nañ daal parce que dinañ xam ni ñun am nañ ay joueurs yi nga xamante ne tooguñu ba nawetaan jot ñu jóg ne ay joueurs nawetaan lañ dañuy dem football yi mais loolu boo ko defee boo ñëwee si terrain bi da ngay sa bopp ngay mere xam nga da ngay sa bopp da ngay fekk ñi nga xam ne dañ laa raw bu baax a baax a baax parce que football fi mu toll nii mooy li ñuy wax entreprise la bi nga xamante ne ndeysaan xoolal Cheikh Ibra jaar na waajur Cheikh Ibra ndeysaan dem Guédiawaye FC. Cheikh Ibra tey yóbbu na ko Valenciennes mu signé fa trois ans di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla jàppale ko ndax doomu Hann Bel-Air boobu noonu franchement yàlla jàppale ko Pierre Pierre Pierre Faye ndeysaan waaw moom it na fii mi ngi ci pays de l'Est yi yàlla na ko yàlla jàppale jàppale bépp doomu Hann Bel-Air bi nga xamante ne tey franchement fii nga jógee dem di fubali fële ci dëkk yële ne ne kon bokk euh, quoi qu'on puisse dire wax ni compétir kese moo am solo compétir kese mooy dëgg parce que compétition yemul ak lenn ku am compétition ak ku amul compétition mënuñoo yem ci terrain de football day feeñ parce que ki am compétition di entraîner année bi ba mu jeex championnat noppaluku tuuti nawetaan commencé mu continuer ah bu ko defee ñaar ñetti at dina gis buntu te joueurs yi fi mu toll nii buntu la ñuy wër football tuñ ay nawetaan nii football ilaa yow mi diini de buntu bu ñu génnee dem seen yoon teral nday teral bàyyi kon boog Hann Bel-Air ñi ngi ñaan xale yëpp nañ dem compétir yi mm. ñëw leen ci équipe bu dëkk bi ngeen compétir te ngeen xam ne loolu seen wareef la loolu dafa nekk li nga xamante ne tey moo leen mooy seen wareef moom ngeen war a def parce que bu ngeen toogee ba nawetaan jot ngeen ñëw parce que bu ngeen gisee niveau bi équipe bi di football maanaam da ngay handicapé sa équipe da ngay handicapé équipe dañuy yaakaar ci yow maanaam ñu naan kii tey doxul pourtant dafa mën football mais boo mënee football amoo entraînement du jëriñ dara kon boog nañ leen génn ñu compétir yi jour da ngay compétir en tout cas le score est de un but à zéro le but est marqué par Assane Diop attention l'ASC Mbaxale qui dégage le ballon loin dévié par qui par le défenseur ou l'attaquant il y va l'attaquant il y va toujours il est très vif cet attaquant par Omar l'ancien joueur de l'ASC Sanch l'ancien joueur de l'ASC Wadour cette année il évolue à l'ASC Mbaxal len ne Hann Bel-Air attention ça va en contre ça va vite il est parti va-t-il attraper ce ballon Et eh, que dit l'arbitre Non, 6 mètres, le ballon était sorti. Sur eux, ça va très vite. Ils sont au stade municipal de Anne Le score est de 1 but à 0 en faveur de l'ASM Mahal, 15 minutes de jeu. dëgg la Ali ah, fi may wax ak yow nii équipe bu mbaxal bi ah, dañu xaw a changé ah, seen défense bi ki nga xameen moo nekk arrière gauche mooy Goutia mooy jouer arrière gauche euh, ki nga xamante ni mooy ak central si diggante mbay Diop la ak ki nga xamante mooy Khalifa Wele moom mooy jouer ak central bi noonu sol numéro 14 bi euh, buy premier match am officiel euh, ki nga xamante ne saada mooy jouer à droite au milieu y avait Yirim yi nga xam ne y avait Ley yi nga xamante ni y avait ci kaw ñu xam fi Pa Omar ak ki nga xam mooy Amdi ak ki nga xam ne mooy Mohamed noonu la équipe bu mbaxal bi ñëwee waa mbaxal ñoo yor bi noonu ñu ngi dem ci côté gauche Amdi nu muy def. moo sol numéro 7 bi mu ngi koy orienté eh, attention waa kër gi récupéré nañ ko rapidement jox leen seen capitaine bi ñu koy joxante ñu ngi dem waa kër gi ñu ngi dem oh y' a faute faute attention les gars na diggante eh, kër gi ak mbaxal fi may waxe yow nii. équipe bu mbaxal bi moo mënee benn bal ci dara waaye équipe bu kër gi ñu ngi puus xale yi mën nañu football ñu ngi dugg ci match boobu baax a baax a baax a baax ah waa kër gi le numéro douze moo yor ballon bi noonu mu renversé ko ci kaw ah, ki nga xamante ni moom mooy Yirim moo ko yor noonu ah mooy le gardien de bi Yirim moo lan ñu koy wax fii cooy mu dégagé ko rapidement ñu ngi dem attention ñi nga xam ne waa kër gi ñoo ko dégagé récupéré pour Mohamed Mohamed nu muy def ah, mu jox ki nga xam ne mooy Sada Sada moo yor ballon bi noonu mu delluwaat ko Mohamed ñu ngi dem ci côté gauche ngi dem Mohamed dem na mu ngi dem attention attention Mohamed moo récupéré ballon ñu ngi dem ñu ngi def mu renversé ko ah, attention mu ngi dem Mohamed mu ngi def attention mu ngi dem mu ngi dem attention mu joxoo ki nga xamante ni moom mooy saada mu bërën ko foofu attention laay see Sada woo laay see mbaxal ki pousse ki pousse Mohamed mu ngi commencé wala boppam di xale bu mën a football ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax Ali ci diggante mbaxal ak kër gi match bi neex na waaye Ali mba mbaxal ñu ko créé 1974 te source ak léegi mu ngi bëgg a def ay waxtu te ci njëkk dugal bii muy grand Ngone Ndiaye koy nuyu de passage Ngone moo njëkk dugal bii mbaxal ma koy nuyu de passage di ko nuyu di ko ñaanal yàlla wér yaram waa mbaxal nag ñoo yor corner bi noonu Ali ma bàyyi la nga dem. 74 dañ créé ay su ko dee indi ay archives noonu la fii Mak TV la nee nañ leen lépp lañ leen di feeñal euh, da ngeen war a xam loolu 74 yàgg na boobu ñu ñii sax ndeysaan xaaj ñu bay juddu. kon bokk ASC Mbaxal xam nañ ne ASC bu yàgg la ndeysaan ASC Mbaxal la ñoo mëneegum 1-0 fii gis nañ jeunes yi ni ñuy def ñu ngi daw di dem ci kanam mais exemple bële na leen nu mu tudd kooku noonu est-ce que du doomu Idrissa bi. non non mu boobu Idi bi tey. tey tey ok d'accord xam man joueurs yi moom buñ soxee du ma leen xaw a xàmmee waaw tey dafa mel ne classement bi dafa am quelque changement mooy Mohamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye. latéral droit mais dañ ko avancé. ah ok je vois c'est qui très bien. de loin je le vois pas mais il va vite keroog match kipp bi moo doon indi bali si côté droit bi franchement ça joue dévié non sur la tête du de l'ASC Keur c'est pas fini Amdi Sarr Amdi Sarr il va il provoque il cherche attention il le perd le ballon par le numéro Goutia ça joue et il donne à son gardien le gardien qui contrôle et il joue avec Euh, l'axe central euh, sur le côté droit, ça joue. Attention, ça joue. Ça joue. C'est pas fini. Alsane qui est dans son match. Une ouverture sur le côté droit. Ah, non, non, non, non, ballon est sorti. Ça joue Alsane. Il est en confiance aujourd'hui. Les jeunes qui sont en confiance, ils peuvent te sortir des très grands matchs. Quoi qu'on puisse dire, am beneen niveau am na fi Mbaxal Diallo Waly ñoo bokk nday ñoo bokk baay Waly daan sant ñoo bokk nday baay Euh, montagne ak sant yàlla ñoo bokk ndey ñoo bokk baay buñ ko jéemee dindi sax mënul dañ ndaxte ñun ñëpp an bellan lañ dëkk suuxa dëgg la Ali comme ni nga koy waxee rek ah, tey yaram daw na trop nga gis ni tey ji xale yi taxawaay bi ñu am muy ñaari équipe yëpp muy équipe kër gi am nañu personalité xale yi mën na football ah, ñi nga xamante ni mooy waa Mbaxal ñoo yor ballon bi noonu ñu ngi koy joxante Goutia moo ko jox ki nga xam ne mooy lay ah, ki nga xam ne mooy Goutia moo ko récupéré jox am di am di jox ko Yirim Yirim muy def mu jox ko mbay Mbaye mu ko euh, orienté ko ci beneen côté bi mu jox ko ki nga xamante ni mooy euh, euh, Vieux Thioye Vieux nu muy def ah, mu jox ko mbay Mbaye nu muy def attention mbay mu jox ko Goutia Kouthia mu ngi def mu delloo ko mbay ci côté gauche mu ngi dem ah, mu nga xam ne moom la Yérim yor mu jox ko ki nga xam ne mooy Khalifa Wele Khalifa joue l'axe mu jox ko kii di xam Yérim Yérim mu delloo ko Khalifa attention ñu ngi dem attention ko Khalifa moo yor ballon bi noonu mu renversé ko ci kaw a kaw a kaw mais waa kër gi récupéré nañ ko ñoom it ñu ngi koy jéem a doxal côté Ndiaye côté Diop am Diop indil Ndiaye ah, laay see mbaxal ñoo ko yor noonu waaye dañ ko perte rapidement ñi nga xam ne ñooy xale kër gi ñoo yor ballon bi noonu doxal seen côté gauche euh, il joue bien l'ASC kër gi ñu jox ko seen euh, rotation dañ ko perte rapidement Ali kër gi amuñu droit ballon bi di ko teel a perte amuñu ci droit parce que booy dajeeg équipe bu mag. bu nga xamante ni dafa ñëw sa kaw da ngay téye ballon bi jéem ko maîtriser ah ki nga xamante ni mooy lëy moo yor ballon bi noonu mu jox ko Khalifa Wele Khalifa Wele mu renverser ko ci beneen côté bi ci Mbaye Diop le numéro 15 nu muy def Mbaye mu jox ko ñu ngi dem attention mu jox ko ki nga xamante ni ah, mooy mooy ah, Goutia Goutia ni ngi def attention Goutia mu ngi dem mu jox ko ki nga xamante ni mooy Pape. Euh, attention Pape nu muy def mu jox ko euh, Amdi Amdi mu renversé ko ci beneen compte ci saada Sada nu muy def mu garde ko ballon bi euh, saada moo ko yor noonu mu jox ko ki nga xam ne Mohamed Mohamed nu muy def mu ngi dem Mohamed lay mu ngi dem mu ngi dem mu ngi dem mu ngi dem attention attention ata échange Assane moo yor ballon bi noonu mu jox ko Mohamed attention mais yaay Simet Simet pour laay see kër gi Ali ñaari équipe bi ñu ngi pousse ñu ngi pousse équipe bu mbaxal bi mu ngi pousse pour uti deuxième bi bi ñi nga xameen mooy waa kër gi nañ def attention bu baax a baax parce que jël deuxième bi heure bi wóorul nañ gën a sécuriser seen défense gën a am taxawaay baax waa mbaxal ñoo yor ballon bi noonu Gouthia moo ko yor mu redressé ko ci beneen boor mu jox ko ki nga mooy Mbaye mbay sànni ko ci ne ne ah, moom mooy ah, Vieux Thioye Vieux mu jox ko ki nga xam ne mooy Khalifa Wele ci ak central côté droit Khalifa nu muy def ah, mu jox ko ki nga xam mooy assan assan Assane attention perte bal am na waa kër gi ñoo ko récupéré muy seen capitaine joue bien mu jox ko seen numéro 12 numéro 12 bi ni muy def ñu ngi dem attention mu jox ko seen numéro 7 waa kër gi ñoo yeb ballon bi noonu di ko joxante am Ndiaye indi Diop le numéro 15 mu ngi koy jéem a doxante attention xale yaa ngi dem mu renversé ko attention bien joué bien joué laaj see kër gi ñu ah, relancer ko rapidement ci Mohamed Ngom Mohamed Lay attention ñu dégager ko mais ah, rapidement xale yi euh, kër gi récupéré nañ ko ñu ngi koy jéem a doxal ñu pertaat ko ñoom it rapidement ki nga xamante ni mooy Goutia moo ko récupéré noonu mu euh, jox ko Yirim Yirim nu muy def Yirim joue bien mu jox ko Lay Lay muy def mu écarté ko ci beneen côté bi ah, Amdi moo ko yor Amdi nu muy def mi ngi dem mi ngi dem attention Amdi mi ngi dem mu jox ko Assane Assane mu redressé ko attention mi ngi dem. Oh, heureusement heureusement Ali ñaari équipe yi ñu ngi pousse football am na fii ñaari équipe yëpp ñu ngi joué Ali boo bëggee dégg-dëgg équipe bu kër gi ñu ngi joué mais on est d'assister à un match euh, franchement très rythmé entre ces deux équipes franchement le score est de un but à zéro en faveur de l'ASC Mbaxal l'ASC Mbaxal qui pousse il cherche à tuer ce match mais l'ASC Keur Gui résistante franchement euh, tient toujours euh, franchement sur ses deux pieds Ça joue une touche effectuée par l'arrière droit. Il donne à son axe central. Il contrôle. Il dégage loin. Le ballon de la tête, non. Pas encore. Le ballon de la tête du défenseur et un retour de jeu. L'arbitre a signalé un retour de jeu de la part de l'attaquant de l'Aïs Mahala. En tout cas, ça va vite. Là, c'est Kerry qui déborde sur le côté gauche. Ça joue, c'est pas fini. Il va-t-il centrer Non, il cherche à dribbler. Il centre et le ballon est sorti en 6 mètres. La sécurité qui pousse, essaye de trouver des solutions face à une, équipe très très de l'ASM Bahala. En tout cas, Mohamed Rassoul Ndiaye, euh, sur le côté droit, euh, en tout cas, il est en train de faire un très bon match. Il va vite, franchement, d'après les informations qu'on a eues, euh, c'est un élément de DA Foot Mariste. Mohamed Rassoul, bonne continuation dans tous tes projets, Mohamed. Oh là là, quel mauvais choix de la part de l'arrière gauche de la Sembahal. Là, c'est Kirgui qui se dégage. Le ballon dégagé. Bon, le numéro 2 qui cherche une nouveau tour. Oh là là, que la balle atterrit sur le numéro 2, l'axe central. Faut, faut pas jouer avec le feu. Il s'en sort de justesse. Le ballon récupéré par le numéro 2 la Kirgui. Une profondeur. C'est trop loin ou pas Non, le ballon est sorti en touche. En tout cas, la centrée de l'ASM Bahal, l'arrière droit, il est en de livrer un très très bon match ici. On de jeu et le score est de 1 but à 0. de confirmer, franchement, qui est de montrer que ñoom équipe bu mag lañ de montrer que coupe bi ñoo ko jëloon daaw ren dañuy indiwaat leneen en tout cas quoi qu'on puisse dire ils ont une avec des jeunes franchement dynamiques des jeunes yi nga xamante ne franchement xam nañu football mooy seen te moom a ñu ngi koy wane si terrain bi donc foo équipe bi nañ ko ba xal parce que équipe bu mbaxal bi c'est pas pour dire euh, lu neex ñëpp non non c'est des jeunes ils sont franchement très bons et franchement boo leen xoolee xam ni physiquement ils sont prêts hmm. en tout cas quoi qu'on puisse dire ils sont en train de régaler les supporters arbitre bi nee na ko faute bu pousse nee na ko football amul waaye bu ko pousse temps cinq minutes de bul euh, jeegum nañ vingt cinq minutes de jeu si waaye li gën a neex si match bi xamoo leen ko ci commentaire yi la da ngay gis waa waa Mbaxali ak waa sañ yi di foo di commentaire naan ko ay bu ma la jàppee kii ne ko doo ma def dara kii ko maa lay def dara ah. waaye ay naataangoo lañ mais nag football nag dafa doy waar xam naa ni match boobu noonu moom bés bu ñëwee moom du nekk match bu yomb waaye nag quoi qu'on puisse dire ah bu yomb nag parce que Mbaxal day bëgg a def parcours sans f sant day bëgg a def tout pour gagner pour qualifier mais nag du du yomb quoi qu'on puisse dire du yomb quoi qu'on puisse dire du yomb sant tamit eh buñ bëggee gagner mbaxal li ñu indi deuxième match bi il faut ñu changer ko bu baax a baax a baax a baax a baax parce que ñii ma gis nii ak li ñuy daw néew ma kenn mu leen gagner mais gagner leen a jafe coup franc attention génne ko sur le numéro deux qui frappe attention le ballon dans les bras du portier arbitre bi nee na ko hors-jeu nee na ko kaay abit bi nee na ko kaay abit bi nee na ko kaay nee na Ousmane Fatouche bul saaga Ousmane bu fi kenn saagawu fi ay yaa mën a duul dañ ko fiy tere bu ko fi kenn wax ku ko wax dañ lay bloqué buñ la bloqué suba ngay wax naa leen ko nag kon boobu respect eh, xool bu baax la ngeen di wax ci commentaire yi Fatouche fi mu toll nii xam naa ni moom waa ñaata temps la la bloqué dix ah dix secondes moom bëriwul kon boog boo ñëwaatee rek essaye d'être courtois dans les commentaires parce que ici on est des gens civilisés on parle de civilisation des trucs franchement ay eh waay góor bi bàyyi li ngay def sànq def nga ko mu coûté cher nga bëgg ko dolli loolu kër gi am na fi des suuf ah moom ah, man gisoo eh, erreur ba attention ça joue heureusement que le défenseur était vigilant ça joue le numéro 7 qui cherche le 1-2 ça numéro 12 il contrôle son ballon, il joue avec le milieu de il contrôle le numéro 10, mais c'est trop lent. Le numéro 10, ça joue à à moi. Attention, ouverture sur le côté gauche. Amdi il est parti tout seul, donne-le, de oh, la tête gardien qui se saisit du ballon. Ça pousse, du côté de l'ASM Bahal. 27 minutes de jeu, 1 but à Attention, le ballon sur le côté droit. Je va récupérer. C'est pas fini. Attention, Ambi qui contrôle. Ça joue à une touche. Deux touches. Le numéro 2 donne au milieu de terrain. Qui lui redonne le ballon. Ça joue au ballon. Là, c'est Franchement, ça joue. Ouverture. Pour qui Pour l'attaquant. Attention. Et le défenseur qui met ce en touche. En tout cas, une chose de sûre. Excentré Mbahali, excentré attaquant. Il faut le marquer. Il faut le marquer. am nga ku mel ni am di euh, xale la bu pare da nga xale dafa joué année bi yëpp xale yi nañ ñëw superviser leen ñu xool leen superviseurs yi nañu ñëw ñu xool xale yi bu baax a baax a baax parce que xale yi liggéey nañu liggéey ba nga xamante nii ku leen gis du yoon sax déwén ñu joué euh, si niveau bi dañu war dem joué ji championnat parce que xale yi am nañu niveau wax dëgg yàlla ñii leen di ñaanal yàlla leen yàlla jàppale di wax ni tey jii boo xoolee numéro quinze u laay see kër gi numéro douze bi gis nga tamit xale yi mën a football lañu ah capitaine vraiment yàlla na leen yàlla jàppale di wax ni rek superviseur yi maa ngi leen di woo ñu ñëw seetaan ci xale yi ñu ñëw jël leen xale yi am nañu niveau mën nañu football te football bi mu ngi fii ci diggu yaraax toog fii di xoole jàpp naa ni nag ñi nga xamante tey ah, tey loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax di wax ni nag wax dëgg yàlla ah, Ali ah, équipe bu maxal bi tey yaram daw na trop di wax ni di fàttaliku rek Ah, mag ñu baax ñooñu nga xamante ni tey woon nañu équipe bi muy kenn mel ni ñoom grand Dieng maa ngi leen di nuyu de passage ñooñu ay ñi nga xam ne ñoom ñooy Daara Jaw maa ngi leen di nuyu de passage xamee ni ñooñu tey kenn mënul wax laay say mbaxal te doo leen wax ku mel ni ngoon Ndiaye ah di nuyu di wax ni ah suñu mag ñu baax ñi nga xam ne nekkoon ak central bi nga xam ne kenn mënu ko fàtte muy Ousmane saar Gueye kenn mënu ko daaw Daouda Fall kenn mënu ko fàtte ki nga xamante ni tey ah, moom mooy ah, grand Masser Diop. ñooñu kenn mun leen fàtte ñi nga xamante ni tey dañu def lu bari bari ci laay say mbaxal yàlla jëlee leen fii tey nga xamante équipe bi ñoom ñoo ko indi ba fii tey jii seen sët yi ñoo fi nekk seen doom yi ñoo fi nekk ñu wax dëgg yàlla gàcce ngaalaam ku ci mel ni Baba Ndiaye maa ngi koy nuyu de passage liggéey na liggéey bu rëy rëy si laay say mbaxal tey jii kenn mënu toog fii bañ ko tudd foog nga tudd ko parce que liggéey nu rek li nga xamante ne nag tey jii moo fi am ci diggante ñi nga xam mooy xale kër gi ak ah, xale ah, ah, mbaxal yi ba tey équipe bu mbaxal bi moo mëneegum benn bal ci dara waa kër gi nag ñoo yor balo bi noonu seen numéro 15 bi moo ko yor gis nga mooy xale bi may wax il bien ñu ngi koy joxante seen numéro 12 ñu ngi joué ñu ngi koy jàppante di ko joxante attention mais dañ ko perte rapidement Gouthia moo ko récupéré mais ñi nga xam ne mooy xale kër gi ñoo ko récupéré ñu ngi dem ci kanam waa kër gi ñu ngi doxal ñu ngi dem ñu ngi dem attention ñu ngi dem mais heureusement Mbaye Mbaye Diop nga mais attention heureusement heureusement ñi nga xamante ni y' a faute faute pour l'ASC Kër Gui Ali Kër Gui commencé le pousse. L'ASC Kër Gui pousse à l'image de son numéro 7 franchement il va vite il cherche à percuter. Franchement, il s'est défait de l'axe central de l'ASC Mbaxal Mbaye Diop et l'autre joueur est venu et le bouscule et il obtient une faute très dangereuse sur le côté droit. Attention à l'ASC Mbaxal à ce coup de pied arrêté. Ça peut se jouer sur rien tout. En tout cas, Dalifort incha allah bu bëggee na ñëw fii fi mu toll nii diisoo fi xew ñun diisoo la ñuy wax Dalifort moom moom nee nañ dañoo bëgg a bàyyi zone bi ñi ngeen di woon ak ci njëkk nañ ñëw bokkat ndax mu gën a neex Dalifort nañ ñëw dellu si leen fii Hann Bel-Air fi ngeen bokk. dëgg la Aliou xam nga Dalifort waruñu ko ñàkk waaw ndaxte équipe équipe bu mujjee dem départemental final ASC Dalifort la kon ñëw leen ñëw leen ngeen ñëw bokk fii ngeen xam ni fii ngeen bokk ñëw leen kenn mënu leen fi génnee ndax fii ñun ñëpp a ci yem. disons nag ñëw nañ de attention le coup franc pour l'ASC Keur Gui qui va s'en le numéro 12 ou son partenaire le numéro 12. il centre la tête du défenseur de l'AS Mbaxal encore non il laisse le ballon le ballon est sorti en touche en faveur de la Keur Gui l'AS Keur Gui qui est en train de livrer un très bon match l'AS Keur Gui franchement qui n'a pas dit son dernier mot attention c'est pas fini la touche effectuée par le numéro 10 il lui redonne il centre à nouveau le ballon dans les bras du portier de la Mbaxal qui va jouer vite il joue sur son attaquant Le ballon est récupéré par le jeu de l'ASC Kergui. Il cherche son partenaire, il le trouve. C'est pas fini, ça joue. Il va sur le côté gauche. Il trébuche. Il va chercher à, à se défaire de lui. Dommage, le défenseur, l'arrière droit est omniprésent sur le côté droit. Il dégage, le ballon repoussé à nouveau et le ballon est mis en touche par le jeu de la Mahala. mahalla Sow Mamadou nee na ma bul wax dara Dalifo mi ngi ñëw Dalifo ñëw leen Feeraay ñëw na ñëpp ñëw na ñëpp ñëw non à la violence ak salaam liggéey bu neex vraiment ñu fubal ci jàmm ak salaam en tout cas ñu xam ni ñëpp benn la bal baa ngi daw profondeur abib day yëkkati objet abib bi nee na ko kaay abib bi nee na ko kaay da ngaa objet de en tout cas gars yi ñu ngi waxtaan ci commentaire yi suuxa Dalifort incha allah am nañ yaakaar ni dina ñëwaat bu soobee yàlla ay Dalifort commentaire daa neex ba des fois da ngay fàtte match bi ko liir suuf mais <laughs> waaw mais na Feeraay ñëw rek Dalifort ñëw Maris ñëw non Maris 2 ñëw Kasanka euh, euh, ñëwaat. ndax zone bi gën a neex di en tout cas kii nee na suba kuy football programme bi wax dëggul xam naa balaa match bi di jeex na wàcc si ñu wax leen kuy football en tout cas pour l'instant kii nga xamante ne mooy mbaxal ak kii nga xamante ne mooy kër gi seen match bi franchement mi ngi daw bal bi waa kër gi ñoo ko yor noonu ñi ngi jéem profondeur Attention, le ballon récupéré par le numéro 15 de la Sekegui, le père. Oh Qu'est-ce qu'il a voulu faire le numéro euh, de la Semaral Eh ouais. Eh ouais, ça joue. C'est pas facile. Terrain bi. Zori de Zenbop. Oh, long dégagement. Il cherche son excentré. Il le trouve. Mais le ballon récupéré par le jeu de la Semaral. Attention, il cherche le milieu de terrain. Ça joue, il décale sur le côté gauche. Amdi Sarr, il va y aller tout seul. Amdi Il va, il attention, face défenseur. Amdi, il se défend défenseur. Le retrait. Et là, non, personne. Et personne. Et ça joue. Là, c'est Kergui. Ils beaucoup de risques. Mais ils jouent au football. C'est ça le football. Ça joue. Attention. C'est pas fini. Ils vont aller en contre. Là, c'est Non, non, non, non, non. choix de la part du milieu il a fait un très mauvais choix, le milieu de terrain de l'ASC Kergui. Et le ballon est dans les bras du portier de l'ASC Mahal. Il donne son défenseur, ça le numéro qui redonne son gardien. Le gardien qui décale sur le côté droit. Attention, il joue avec le milieu mais il n'a pas pu le trouver. Le ballon récupéré par le capitaine de l'ASC Kergui. Il il va y aller il y va. Oh, oh, oh, il va obtenir une faute. Et l'arbitre une faute, une faute, une faute pour euh, l'excentré de la SM Mbaxal Amdi Sarr. dëgg la Ali ah, xale yi ah, ñu ngi puus ñu ngi puus ah, ci diggante kii nga xameen mooy xale yi Mbaxal yi. ak ñi nga xamante ni euh, moom mooy xale euh, kër gi euh, jàpp naa ni fi may wax ak yow ni xale yu mbaxal yi nag ñoo mënee gum benn bal ci dara ma jàpp ni nag équipe mbaxal bi ñu ngi puus di puus xale bi ñuy wax yirim nag wax dëgg yàlla maa ngi koy gis mu ngi def match bu rëy rëy nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax jàpp naa ni moo sol numéro de bi noonu ñi nga xamante ni moom mooy am di moom it nañ ko bàyyi xel xale la ba nga xamante ni ah, am xale bu mën a football la di wax ni nag ah, ci diggante mbaxal ak ñi nga xamante ni moom mooy xale ah, kër gi xale kër gi ñu ngi jëf leen kenn ku lay kàttan ñoom it ñu ngi jéem a téye bu baax a baax a baax waaye ñi nga xam ne mooy xale kër gi ah, mbaxal yi ñoom ñoo am coup franc bi noonu ci bopp 18 bi attention laay say kër gi noonu ñu moytu coup bi ah, jege na lool lool ci entre ki nga xamante ni moom mooy Assane ak ah, ki nga xamante ni ñoom ñooy am bi ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci balon bi ñi nga xamante ni nag arbitre bi mu ngi wax ak miir bi bu baax pour ñu xool. Euh, taxaw fi ñu war a taxaw waaye ñi nga xamante ni ah, moom mooy euh, kër gi nañ def attention entre Yirim euh, entre ki nga xameen mooy Assane ak ki nga xameen mooy Amdi kenn xamagul koy dóor kan la waaye ñu ngi ci ballon bi ñoom ñaan ñëpp attention attention laay c'est mbaxal attention le coup jege na trop trop trop trop attention coup franc bi arbitre bi soufflé na kuy dóor Amdi il tire ah, oh, oh Amdi il passe largement à côté. Euh, di wax ni euh, Ali match bi neex na trop trop match bi neex na trop Ali. am di day aji mango suuro. fi mu doo bal bi moom ak kaay fa ñu nekk daa wute il va falloir se concentrer mais waa kër gi ñu ngi dem suuro nee naa la attention le numéro 7 de l'ASC Keur Gui il s'est attention et le ballon est dégagé à part le numéro le milieu de terrain c'est pas fini ça joue. contrôlé par le jeu de l'ASC Keur Gui un très bon centre dans les bras du portier de l'ASC Mbaxal en tout cas les deux équipes sont en train de pousser sur le numéro 7 de l'ASC Keur Gui il est très bon, très bon. il, déborde il centre franchement et surtout il joue et il n'a pas peur en tout cas quoi qu'on puisse dire aujourd'hui l'ASC Keur a ramené une très bonne équipe mais il savait que du yomb face à l'ASC Mbaxal parce que tamit Mbaxal comme ni ñuy wax rek équipe bu mag la franchement bu ñëwee bu génnee joueurs yi dañuy bëgg am lu ñuy prouver moo tax kër gi faux la def premier match ñu door ko 3-0 mbooloo ñëw def faux pas ñu door leen 3-0 mais équipe bu ndaw amul fii si zone bi amul fii ci commune bi waa Dalifort ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw ci jàmm. en tout cas ne naa leen sànc ak mbaaxal benn la commentaire yi neex na bi yéeg na. franchement nee nañ leen Mak TV lay xewee la chaîne leader comme ni ngeen ko waxee maanaam image yu leer naan ñu naan ñu naan ñu naan ñu nga fiy jëlee boo ko tegee sa télé da ngay mel ni ku nekk canal plus daa neen na suuxa mais yéen seen caméra yi lan la man leen loolu secret la dañ leen ko wax non non xam nga ñëpp a nangu xam nga Mak TV am na expérience yàgg na liggéey ci bés yu mel nii kon bu ñu demee ba toll fii kooku du dootul mooy géej gi am na ndox kon jàpp naa ni loolu lu am solo la Ah, ñi nga xamante ni nag a ah, ah, moom mooy xale kër gi ñoom ñoo yor ballon bi noonu ñoo ko jéem a doxal attention dañ ko perte rapidement attention am bi centre na ko mais ballon bi dafa jéggi ci deuxième poto bi waa kër gi ñoo yor ballon bi noonu ñu ngi koy jéem a doxal seen numéro neuf bi mu dégagé ko ci seen ex central côté gauche Sada moo ko récupéré le capitaine de l'ASC Mbaxal attention Sada nu muy def mu se protège mu ngi jéem a yaa y'a faute faute pour Mbaxal loo mënti wax xale yi daal wax dëgg yàlla wane nañ seen bopp tey may wax ni rek superviseurs yi nañ ñëw xool xale yi baax a baax a baax. en tout cas les jeunes ici à Hann Bel-Air sont de nous régaler ils sont en de jouer au football et franchement ils jettent duñu dégagé wuñu teg passante ko ko proprement jouer au football avec un peu d'encadrement avec de grands grands coachs franchement yaa mën nañ fi def dara fii ci Hann Bel-Air parce que vraiment on a des jeunes très très talentueux qui jouent au et qu'ils n'ont pas peur. Ils jouent, ça construit de gauche à droite. Franchement, quoi qu'on puisse dire, l'AS Mbaxal est en train de régaler les supporters ici au stade municipal. man maa ngi daw xoolal ndeysaan il se défait de son attaquant il cherche le numéro 3 l'arrière l'arrière qui décale sur le côté il est parti oh là là et c'est pas oh, dommage le gardien était présent l'excentré de l'AS Mbaxal non il va très vite il va il va très très très vite Soukha. Euh, dëgg la Ali euh, duñ fi mën a toog mukk Ali te euh, tudduñu ko mel ni ñàkk jaa la meilleur arrière latéral gauche de l'ASC Mbaxal tey jii ñooñ juñ ko leen gisee tey suñu yaram dafay daw. ku mel ni xam nga tey ah, tey kenn mënu ko wax te doo ko tudd ku mel ne ñàkk jaa ñu ngi koy nuyu de passage ah, Yirim moo yor ballon bi noonu mais ah, gi waa kër gi seen numéro douze bi moo yor bi noonu mu ngi koy waaj a tous mu renverse tous ko ci kaw a kaw ñoom ñoo ko yor noonu seen numéro sept bi ni muy def mu relancer ko mais dañ ko perte Yirim moo ko yor noonu di ko doxal Yirim oui Yirim il est a match Ali Yirim il est dans a Orjo Aliou Orjo am na ah, ci ah, xale yi nag ah, supporters yi nangu wuñu waaye arbitre bi bi daal nee na Orjo la ci waa mbaxal yi may fi waxee yow nii ci diggante mbaxal ak kër gi jàpp naa ñaari xale yëpp ñi ngi wane seen bopp bu baax a baax a baax équipe yëpp tey jii wax dëgg yàlla ku fi ñëw soxol dina sedd guy ci équipe bu kër gi ay xale lañu indi ay xale yu mën a football ñi nga xam ne mooy mbaxal tamit indi ay xale ay xale yu mën a football jàpp naa ne mi-temps bi li si des Ali bareetul lool ma bàyyi la nga doxal ba ci kaw. il reste trois minutes avant la fin de cette première mi-temps ici au municipal de Hann les deux équipes sont en de se battre une faute il nañ arbitre bi dem na sifflé ne na waa Croix-Rouge ñëw nañ suuxa mais vraiment yow ñu ngi wax si match bi mais commentaire yi suuxa vraiment je suis ému là parce que franchement. ça fait non c'est c'est c'est autre chose internet ñun ñun amuñu seen fay yéen ñun Mak TV lépp lu mu mën pour ngeen kontaan bu soobee yàlla nañ ko def franchement quoi qu'on puisse dire kii nee na ma bu ngeen waxee ñu déglu la kon wax leen ba violence du am incha allah bu soobee yàlla yonente bi xale yi ñu ngi yàggu ndeysaan léegi seetaan pare waa ci ndànk dem ñibbi la ñuy def kenn xulawul kenn xeexul en Bel Air ay nit yu civilisé ñoo fi nekk ay nit yu correct te lii duñ ko yàq dañoo ñaan dañuy ñaan kay équipe yi gën a yokk Dalifor ñëw Maris de ñëw Kasanka ñëw Feeraay ñëw ah ñu yokk affaire bi gën ko yaatal ndeysaan mu gën a neex a ah, sama waa ji ah kii Paris la jóge suuxa bàyyi ko mu ñëw ah sama ndaanaan bi ah sama ndaanaan ñëw ne daa jóge ba Paris ndeysaan ne woon ah, naa la seet si ma ne ko ñëwal seet si ma suuxa awal ko seet mu toog taxal ma puus suuxa tey sama ndaanaan ba Paris yow fa yow yow fa chaîne day def li ñuy def de mais ku baax jaar naa la Ali. mais ku am kontante. si Mak TV. lii de moo ko gisee dama kontaan franchement man maa ngi tudd Bamba Ali xam na ma depuis depuis depuis depuis Paris. maa moom mu nekk nit ku baax dama ne du ma ñëw ba stade bi duma ko du ma ko set si wax dëgg na yàlla sekk nañ ay teraanga ya nga xamante ne mënu ma ko sax di ko wax nit ku baax la. te waa Paris tam aussi namm nañ la nee nañ kay ngay ñëw ñoo ma yóbbante nag de moo tax ma ñëw fii waaw waa Paris namm nañ dëkk bi nangu na la waaw dëkk bi nangu na la mais waa Paris aussi soxla nañ la aali ma toog sama dëkk rek mais boo bëggee dégg-dëgg diaspora bi ñëpp kontaan dix neuf heures fu mu jotee wala dix sept fu mu jotee ñëpp taal seen téléphone wala ñëpp taal seen télé Mak TV yaa ko caaxaanee de eh. mais international la léegi ñëpp koy seetaan ci àdduna eh. ñëpp koy seetaan man Bamba maa ko wax. yow média di muy dix di dix neuvième Bamba ko ñu kasanka la dëkk suuxa. kasanka laa dëkk mais am na solo ñun ñëpp benn nañ. ñun ñëpp benn nañ tey du ne kasanka laa dëkk du ma wax ak Ali du ne kasanka laa dëkk du ma wax ak ma Samba ma wax ak ma Demba ñun ñëpp benn nañ. c'est le Sénégal qui gagne. Mm-hmm. et Hann Bel-Air aussi mooy gën man fii laa dëkk su ma ñëwee mënu ma ñëw bañ a seetaan ci match luñ lay ñaanal jàmm ak salaam waa diaspora bi instant namatuñ Sénégal boo bëggee dégg-dëgg namatuñ Sénégal waa diaspora bi macha allah Mak TV sa kaw sa kanam. attention ça joue l'ASC Mbaxal qui essaie de marquer ce deuxième but le ballon remis la tête par le joueur de l'ASC Keur c'est pas fini et Ibe Nasso Dodo oh là là laissez-y passer pour rien du tout il a failli tromper son dernier Bamba Bamba Bamba kontaan naa ci yow. Ah, vraiment mais maa ngi gën a kontaan maa gën kontaan man nga ñëw dalal xam nga sama xol seet na trop dama ne naa la ñëw ziar si. mais na wax waa Kasanka ñu ngi leen di ñaanal ñu dellu si si jàmm ndax Kasanka dafa bokk ci nawetaanu Hann am air am na lu ñu ma jot a yóbbante sax moo tax ma jaar fi nii te yow xam ne su ma ñëwee sa plateau ñëw toog ak yow sama fierté la te ba pare en plus xam naa di ma ko nangul ma dara nag ci football wax fa dëgg na yàlla mais dama bëgg sport bëgg li ngeen di def muy Mak TV yooyu jàppale ni Mak TV du fii la yam dafa dafa da lu nekk lu international damay waxtaan ak keroog sama benn copain mhm. muy waaj sangu mu ne ma tant que match bi jeexul du ma seetaan ma ne ko man foo foo ko jàppee mu ne Mak TV laa ko jàppee kon nga xam ni gars yi ñu koy seetaan partout dans le monde kon waa Kasanko lu ma leen wax ab na amul solo mhm. fair play la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Kasanko tey bis bu yàqee affaire yàqalu ko ñooñu ñëpp la ko yàqal. te Kasanka dafa dafa bokk ci ci ci ci nawetaan. bokk ci Kasanka moo fi mujjee dugal départemental fii ci Hann bel ak régional. avec ça dégg naa Kasanka dañ ko aj Maris 2 dañ ko ak ak Cité dañ ko aj suñ ko ajee léegi ñetti jeunes yooyu. Kasanka lañ aj aj Maris 2 ak Feeraay ak Feeraay dafa metti te loolu dañuy dañuy am empêchement soxla nañ yooyu yooyu nawetaan Kasanka mbaxal. billahi loolu c'est le derby derby bu neex kasanka keneen ak keneen c'est le derby mais suñ ko ajee luy problème bi après day nekk day day day nekk lu compliqué xam nga aliment maa wax sànq si sama biir wax avant Bamba di ñëw mhm. ma ne yu mel ni ay kasanka mhm. yu mel ni ay mbaxal yu mel ni ay walidaan mhm. yi nga xamante ni yu mel ni ay kip dañ leen war a may cër parce que dañu liggéey liggéey bu rëy rëy football bi dañ ko transporté yóbbu ko fu kawe-kawe ba ñëpp xam yaraax kon jàpp naa ñooñu ci yi mel nii nañ leen di may cër du lu ndaw rek ñu dal seen kaw nañ leen di may cër loolu daal maa ngi koy ñaan ñu jéggal leen ñu jéggal leen Ali en tout cas kontaan naa sama dernier mot lu ma lay wax kontaan naa diaspora bi kontaan na yàlla na fi yàlla def jàmm wallaay suba laaw la ñibbi mais dama ne du ma ñëw fii te du ma set sama xarit muy Ali yow yàlla na la yàlla defal jàmm te waa Paris nag namoon nañ la nag <laughs> namoon nañ la waa Paris en tout cas <laughs> waaw ok kon baax na merci kii sama nekk Paris di def lu doy waaw vraiment kon Bamba merci beaucoup nekk dix-huitième franchement gàcce ngalaama kon yéen ñi nekk Paris bu ngeen bëggee tatouage lépp lu ngeen di def dem leen seeti Bamba mi ngi Paris rue rue bi dix-huitième dix-sept waaw dix-sept rue Poulet boo ñëwee ba dix set rue Poulet fa ngay fekk Bamba tatouage yi enee lépp la lay defaral xoolal mi ngi noonu Bamba sa jàmm na yàgg Bamba kontaan nañ ci yow on quelques minutes après la mi Amis Internet Mak TV, nous revoilà ici euh, pour cette deuxième période qui oppose l'ASC Kergui à l'ASC Mbaxal. Nous vous rappelons en première période, l'ASC Mbaxal a ouvert le score euh, à l'image de euh, euh Hassan Diouf. Franchement, le numéro 10 de l'ASC Mbaxal moo dugal bii bu njëkk bi premier mi deuxième mi-temps nag arbitre bi mi ngi waaj a joxe coup d'envoi bi ici dans quelques instants. laay say kër gi ñooy engagé kër gi xam nañ ni instant bi nii mooy li ma leen waxoon rek final la ñuy joué moo tax premier mi-temps kër gi laay say kër gi franchement suuxa wane na jom wane na fulla wane na fayda franchement wane nañ ni ñun tamit dañoo ñëw fii ñu ne le contrôle par le gardien de la Mbaxal attention ça joue relance sur le côté droit le ballon contrôlé par Sada le capitaine de la Mbaxal qui donne à Assane Diouf centre ouverture pour Pa Omar arbitre bi nee na ko hors-jeu arbitre bi nee na ko hors-jeu attention arbitre bi nee na ko hors-jeu waaye il était en position d'hors-jeu mais quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse faire suuxa lu ñu mën a wax ak lu ñu mën a def internet yi kenn du ñoom vraiment waxtaan bi ñuy waxtaan ak ñun ak maanaam yar a teggin biñ ci àndal mooy jàll ba ci dëkk bi moo tax tey ba maanaam violence bi ku na bu baax a baax a baax ci biir dëkk bi vraiment kon boog bu ñu xeeb bu ñu bàyyi dara parce que euh, tous les moyens sont bons pour sensibiliser jéem nañ ko côté bu nekk ren nag nañuy waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo toog ci kër gi ñooñu bu ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo demoon terrain ne ah wax nañ fi kat tey lu rafet ci yéen waa Ferraille kat tey comportement bi ñu am rafet na waa Montagne 6 kat tey comportement bi ñu am rafet na loolu ñu ñuy xaar ci doomu Hann Bel-Air xaaruñu dara benn coupe moo fi am li ngay dépensé si nawetaan mënoo ko encaissé bu jeexee. fola nit ñi moom lañ bëgg day dundal gox kon boog nañ ko sàmm ndaxte mooy tax suñu joueur yi suñu doom yi ëllëg nekk ay professionnel kon boog lépp lu ñu wax transversal de Amdi Sarr sur Sada qui contrôle il va la l'avant le numéro cinq il est parti saada il est parti et le retrait ah a oh, dommage y avait personne je te le dis souvent Sada Sada jël na latéral droit bi comme papam lu mu ko daan defee mais man li ma gën a jaaxal si Sadio mooy dafa commencé nekk en confiance plus que compétition bi di avancé brassard bi ñu ko la wala dafa xam ne instant bi nii dama war a boot équipe bi di dem ak moom en tout cas quoi qu'on puisse dire il est présent et il est en de faire un très très bon match. dëgg Ali xam nga euh, xale yi des fois da ngay wax ak ñoom di leen xamal li leen war ak li leen warul xam nga attention Ali heureusement heureusement waaw comme ni ma la koy waxee rek Ali. Euh, toujours damay wax ni xale yi dama leen di di waxtaan ak ñoom di leen xamal ni lii moo leen war lii warul leen surtout ku mel ni Sada nga nekk sa doom nga xamee ni ay say mbaxal euh, sa carrière yëpp sa àdduna yëpp fa nga ko def tey jii kenn jëppiwu la soo demee ba ñëw nekk xale jàppal ñëpp say pàpp lañ jàppal ñëpp say tante lañu jàppal ñëpp say yaay lañu kon jàpp naa ni moom ma ne ko amoo droit def benn erreur fu ñu toll nii da nga war a màgg bu baax a baax a baax jii euh, loolu ma ko doon wax mu koy ñëwaale chaque jour. di ko indiwaale kon jàpp naa ni chapeau Sada di wax ni rek yàlla yàlla jàppale xale yëpp di wax ni Ali wax dëgg yàlla nag gis nga mbaxal amoon na fi benn occasion bu teel waaye nañu moytu équipe bu kër gi bu kër gi dugal ko bii nag taxul nga ni gagné naa ko kon na ñu def attention bu baax a baax a baax a baax a baax parce que deuxième mi-temps souvent day wuuteeg première mi-temps bi ci seen temps fort ñëwoon na ci et Ali heureusement heureusement Ali. Ah, gi ah, kër gi ah, mu ngi pousse mu ngi pousse gis nga ko am nañu occasion bu nette nette net ci bal arrêté yi kon jàpp naa ni ñi nga xameen mooy xale yi mbaxal yi nañu def attention bu baax a baax a baax Ali ñu ngi ci ñaareelu mi-temps bi fi may waxee yow nii équipe bu mbaxal bi ba fi may waxe yow nii moom mëneegum benn bal ci dara ah, ci digganteem ak kii nga xameen mooy laay see kër gi ah, waa mbaxal yi nag ñoo yor ballon bi noonu di ko jéem a doxal numéro 17 bi nga xameen mooy Ahmed ah, Ahmed lu muy def attention mu perte ko rapidement loolu baaxul Ahmed attention waa kër gi seen capitaine moo yor ballon bi noonu lu muy def yaa faute faute Ali match bi jeexagul foo jotagul xale yi dañu wala a football correctement sinon mën na leen jurali musiba il faut être concentré jusqu'au bout rester concentré jusqu'à la quatre-vingt-dixième minute en tout cas une chose est sûre l'ASC Keur Gui est en de défendre ses buts mais di jaajëfal ki nga xamante ne mooy Wele Amadou nee na franchement mi ngi ci jàpp kon na ngeen liker bés a di aimer partager ndax chaîne bi gën a mën a Mak TV gën a màgg gën a mën a dem ci kanam vraiment Wele kenn amul sa fay Mak TV franchement kontaan na ci yéen ñëpp yàlla dëkk la kii nee nga ne Amadou nee na maa ngi sama lan laal Mak TV waaw mais loolu la loolu la Mak TV yéen a ko moom ñu nekk Europe ñu ngi leen di jaajëfal franchement waa France gars yi dañuy nekk ba Europe waa France Espagne Italie partout yàkkamte ñëw fii ñëw Mak TV ñu dégg leen micro ñu wax li ñu xalaat parce que Hann Bel-Air franchement li ñu def dañoo def lu rëy a rëy rëy dañoo innové kon boog lii dëkk bee ko moom du mbiru benn nit bal baa ngi daw attention de l'ASC la tête du défenseur de l'ASC Mbaxal dégagé par l'arrière gauche. Le ballon n'est pas sorti. Et si il y a une touche en faveur de l'ASC Kyrgyz comme euh, nous avons constaté commencement, ASC, ASC Kyrgyz dugg na si match bi xam naa bi ñu duggee Bessel nee nañ leen lii moo fi des gagné rek maa xaar ba déwén. Ah quoi qu'on puisse dire ñu ngi jéem lépp lu ñu ak lu ñu mënul ñu ngi pousse ils essaient de d'aller chercher ce but pour revenir au score. mais l'ASC Mbaxal franchement dañoo franchement attention c'est pas fini sur le côté gauche un bon centre un bon centre sur l'autre non le ballon est sorti et le ballon est sorti il a pas réussi son centre mais ils sont en train de jouer ils sont en train de créer ils sont en train de franchement faire tous les efforts au monde pour pouvoir revenir au score et pour pouvoir revenir dans ce match pour pouvoir rester dans la compétition en tout cas En tout cas, quoi qu'on puisse dire, l'ASC Kirgui en train de jouer son va-tout. Mais il faut nous concentrer. Parce que Tamit, que dit l'arbitre Que dit l'arbitre L'arbitre ne revient pas jouer. Non, non, non, non, non, non, Graoul. Jouer. Jouer. De jouer. En tout cas, restez calme. Un esprit sain dans un corset. bal baa daw waa mbaxal sur le côté droit jox central bi muy def il dégage loin le ballon dévié par Sancho qui contrôle la poitrine c'est pas fini il a toujours le ballon Sancho profondeur il va sortir profondeur oh là là si la passe profondeur oh dommage elle était lente cette passe l'attaquant l'a demandé depuis longtemps mais il a pas vu ça joue et une poussée pour nos retours d'hors-jeu en tout cas attaquant bi laaj na profondeur suuxa bu yàgg bi mu njëkkee contrôler ba orienté ba retrouver wu rester sur ses appuis bu gisoon xam naa ne ko nag parce que nekk di wax nag yaakaar ni boo toogee da ngay gis lépp mais nag boo nekkee terrain bi di def effort yi pour nga gis lépp du yomb bal baa ngi daw waa mbaxal ñoo kon yor si côté gauche bi attention une deux à toi une grosse frappe arbitre bi ne la ko jógal nga Ça joue le ballon sur le côté droit pour les joueurs de l'AS Kelgui. Il cherche à pousser. Il met le ballon devant, contrôlé par le défenseur de l'AS Baral. Dégagé par le défenseur. Le ballon contrôlé par le joueur de l'AS Kelgui. Récupéré par Amdi Sar. Amdi euh, qui cherche le 1-2. Il le trouve. Hein, faute. Non, ouais, bien sûr, il y avait faute. Il y avait faute pour Yirim. Franchement, le milieu terrain de l'AS Baral et dans son match. Oui, oui, franchement, quoi qu'on puisse dire, oui, ils sont en train d'effectuer un très très bon match. les trois milieux de terrain, que ce soit Yirim, Hassan ou euh, euh, comment s'appelle encore Ley. ils sont dans leur, sujet, ça joue, le ballon récupéré par les joueurs de l'ASC Kergui. L'ASC Kergui, mais c'est un peu là, c'est pas fini. Le ballon est dans les pieds de, du numéro Il cherche sur le côté droit son excentré. L'excentré, il va chercher à déborder son arrière. Il y va, non. Le ballon est récupéré par le numéro 3, Goucha. qui joue avec qui le numéro 9 pas mort non le ballon est dégagé en touche loin par le défenseur de l'ASC Keur Gui et qui se blesse au passage Soura euh, Soura ah, Ali euh, ASC kër gi euh, boo xoolee ñu ngi seen temps fort dellu si nañ ci match bi ñi nga xameen mooy équipe bu mbaxal bi kon nañ def attention bu baax a baax a baax comme loolu may wax rek léeg nga dugal bii ah, jàpp ne match bi jeex na fekk ni match bi jeexagul kon jàpp naa ni match qualification euh, ñaari équipe yëpp moom la ñuy joué tey kër gi xam na bu ñàkkee lan moo ko ciy fekk waaye ki nga xameen mooy ay mm. euh, ASC Mbaxal xam na bu gañee lu ko ciy fekk euh, waa Mbaxal yi nag ñoo am tuus bi noonu waaye dafa am le numéro cinq bu nga xamante ni mooy xale yi kër gi dafa am ku ci gaañu mu koy xool noonu waa Croix Rouge yeeg ñu ngi koy xool noonu waaye nag fi may waxee yow nii ci diggante kër gi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale Mbaxal yi xale yu mbaxal yi ñoo mën benn bal ci dara ci première mi-temps bi bi ñu footballee ci quelques simili rek euh, xale bi ñuy wax Assane moom moo sol numéro 10 bi moom moo dugal bii boobu euh, moo tax euh, fi may waxee yow nii équipe bu mbaxal bi moo mën a benn bal ci dara jàpp naa ni ñu ngi ci ñaareelu mi bi li ñuy demareegum bareegul loolu waaye gis naa ci ñaareelu mi bi équipe bu kër gi mu ngi jéem a ñëw bu baax a baax a baax. ñooy xale yu mbaxal yi ñoo yor ballon bi noonu mu Yérim Yérim nu muy def ah, mu jox ko am di yaa fóot ah, am di moo faute ah, ñi nga xamante ni ñooy waa kër gi ñoo moom ballon bi noonu faute di wax ne Ali ñaari équipe yëpp tey jii kenn amul loo leen wax entraîneur yi gàcce ngaalaama liggéey nañu liggéey bu am solo ba nga xamante ni tey jii moom moo leen indi fii tey ci match bu rëy bi ah ci diggante ah, xaley kër gi ak ñi nga xamante ni mooy xaley mbaxal yi Sada moo yor ballon bi noonu mu relance ko ci côté droit bi kii da yoo xamee moom Mohamed lu muy def attention Ahmed lu muy def mu renverser ko attention oh, oh Assane et bi euh, heureusement heureusement Ali ah, waa bi noonu muy am di am di nu muy def ah, mu renverser ko a lañ ko heureusement Ali attention ñi nga xamee ni mooy kër gi. amuñu droit jël deuxième bi suñu jëlee deuxième bi mooy match bi jeex na kon nañu moytu bu baax a baax a baax euh, faute faute xale yi kër gi euh, ñu ngi puus mais waaye seen mbaxal ñu ngi puus jàpp naan ci diggante kër gi ak ñi nga xam ne mooy xale yu mbaxal yi euh, fi may waxee yow nii mbaxal moo mëneegum benn bal ci dara waa kër gi ñoo yor ballon bi noonu ñu relancé ko ki nga xam mooy Kouthia moo leen ko delloo seen ak central si Pa mar Pa Omar muy def mu dévier ko ci am di attention ñu ngi xeex ñu ngi xeex am di jël na ballon bi euh, mais euh, tous euh, tous Ali ñaari équipe bi fi may waxee yow nii kenn mayeetul sa morom dara kër gi xam nañ ni ñoom ñu jëlee deuxième bii bi mooy jeex na te ñoom ñu ngi jéem a uti bii bi bu leen di yóbbu ci qualification bi kon jàpp naa ñaari équipe yëpp gàcce ngaalaam li ñu leen war yëpp def nañ ko li ñu leen war a yebee yëpp yebee nañ leen ko surtout en deuxième mi kër gi ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor xale yi kër gi jàpp naa ni wax nañoo ak ñoom li leen ci xaar boo leen jëlee defet kon moytu leen en deuxième mi-temps jéema dem ci kanam pour jéem a dugali bii ñi nga xam ne mooy xale mbaxal yi euh, jàpp naa ni ñoom it yëpp nañ leen yëpp ba nga xamante ni xamal nañ leen ni tey amu leen droit tey match qualification la li ngeen war a def mooy qualifier équipe bi euh, seen xel mën a dal pour boo leen di demaat ci ñetteelu match bi fekk ni équipe bi daanaka qualifié kon jàpp naa ñaari équipe yëpp loolu la ñuy ñëwee euh, may wax nag góolu kër gi. Euh, ñu ngi koy xool noonu dafa xaw a gaañu di wax ne Ali euh, yaram daw na ci mag ñu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo indi équipe bu mbaxal bi ba fi mu agsi nii ñu si bari tey ñu ngi ci biir suuf yàlla na yàlla yërëm am na ñi nga xamante tey ñu ngi ci biir di dund ak ñun ñoom it yàlla na yàlla yokk seen wér may leen kàttan suñu yaay yi nga xamante ni ñoo daan woyal ASC euh, mbaxal xam nga ñooñu tey am na ñi nga xamante ni ñu ngi fi may leen di ñaanal yàlla ku si mel ni ñoom ndey baare ndey baayam ñooñu ay ñoom dabañang ay ñoom lamabaar xam nga bari nañu ñooñu tey jii munoo wax mu ko doon tudd su si mel ni un grand grand monsieur nga xamante ni moom mooy Khalifa Ndiaye mu ngi fi nga xamante ni tey dama koy ñaanal gudd fan ak wér nga xamante ni bu mbaxal bi daf ko yóbbu fu sori sori sori sori ci wàllu ñoom Bouna Mbass xam nga ñoom Ousmane Thiongaan ñoom mbay Sall ñi nga xam ne ñooy le grand numéro 10 muy Bossis ñu koy wax Daara ñooñu histoire du ko fàtte mukk Euh, ci axe central bi ñu amoon ku mel ni Géej ku mel ni Daouda Fall euh, ci arrière gauche bi ñu amoon ku mel ni Ñàkk Dia ci arrière droit bi ñu mel ni ko euh, mel ni ñoom Pambay xam nga ñooñu kenn du toog fii te doo leen tudd vraiment gàcce ngaalaam ki ci mel ni tey Ngor Ndiaye nga xameen tey mooy grand bi nga xamante ni tey ku la wax ni moo njëkk a dugal bitu mbaxal te tey mu ngi fi toog di seetaan match bi seetaan seetaan match bi en direct te xam ni équipe bi ñi ko mil créé en 1974 74 ak léegi mu ngi bëgg jël ay waxtu yu ay ay bés yu bari ay at yu bari te ba tey équipe bu mbaxal bi mu ngi présent kon nga xamee liggéey rek a wóor. mag ñi mooy mag ñi bàyyi nañ fi héritage bu baax a baax a baax a baax. waaw waaye 74 am na ñi nga xamante ni tey fekkee dëgg la dëgg la xam nga tey waaw mu amoon ay way amoon ay entraîneurs yu mag yi nga xamee dañ fi jaar ku ci mel ni am di saar yàlla na ko yàlla yërëm. tey jéggal ko ku ci mel ni Pa Tafa kenn du ko fàtte yàlla ko yàlla yërëm ki nga xamante ni tey ay moo ñoom grand Abou Sarr ñooñu dañ jaar mbaxal ay ñoom Masset Diop ak ñi nga xamante ni tey ñooñu kenn mënu toog fii di wax te doo leen tudd parce que yaram dafa daw trop trop trop trop trop di leen ñaanal yàlla ñu nekk yàlla na leen gënal fii ñu jóge tey sa tey tey chapeau ñi nga xamante ni ah Marañang xam nga tey le meilleur attaquant bi nga xamante ni mbaxal daawul remplaçant la doon ñëw mais bitu mbaxal yëpp moo ko doon dugal bitu final yëpp moo ko dugal di ko ñaanal yàlla moom it yàlla na ko yàlla may wér may ko kattan may ko mu fekkee lépp ak njabootam am na doomam bi nga xamee mooy G numéro 9 mbaxal dafa gaañu xam naa ni ci match yi di ñëw dina ñëw daaw moo fi nekkoon xam nga di wax ni wax dëgg yàlla équipe yi nag fi may waxee yow nii. comme Ali ni nga koy waxee ñu ngi puus ñu ngi puus ñu ngi puus ah ci diggante kër gi ak mbaxal waa kër gi ñoo yor ballon bi ñu ngi dem kër gi ñu ngi dem attention le numéro 14 de l'ASC kër gi nu muy def ñu ngi dem mu renversé ko ci comme euh, arrière attention mais Yirim est là Vieux Thioy est là wax dëgg yàlla xale la ba nga xamee ne Ali nañ ko bàyyi xel xale bu mën a góolu la macha allah am na compétition mën na góolu mooy góolu équipe bu canal bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ki nga xam mooy Goutia moo yor ballon bi noonu ci côté gauche bi mooy am di am di yokk ah, attention attention ah, xam nga ah, Ali xale bi muy xale bi xale bi amul sax amul amul moom sax gis nga mooy meilleur joueur kër gi amul sax habitude di gagné gis na tey li dal ci kawam football dafa yéeme daal waaw il joue très bien mooy numéro 15 u kër gi mooy xale ba nga xam ne maa ngi doon wax nañ koy bàyyi xel gis nga tey li ko arrivé. moom c'est la football histoire football la euh, carton rouge la jël euh, parce que ballon boobu dafa yéeg ci kaw tànku am di moo tax mu jël euh, carton rouge bi di wax ni rek football la dañ jàpp rek nañ ko encouragé jàppale ko di wax ni Ali fi may waxee yow nii ci diggante kër gi ak ñi nga xamante ni moom mooy xale yu mbaxal yi xale yu mbaxal yi ñoo mënagul benn bal ci dara bi footballee ci quelques minutes ci première mi bi équipe bu euh, mbaxal bi dugal Assane Diouf moo ko dugal. di wax ni ah di wax ni ah, ah, ah mu topp ma kooku maay papam ma ma man maa man maa ko ngénte kooku tey maa ngi koy nuyu bu baax a baax de passage di ko ñaanal wér gu yaram di ko ñaanal njabootam yëpp ah di ko ñaanal tey ah, quartier Yaraax yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm di xam ne Ali man man ñëpp ma bëgg man ñëpp ma bëgg. moo tax su ma toogee fii di wax waaw su ma toogee fii di wax ñu ñu bëri ñu bëri bëri non si Ali boobu boobu boobu Ali am na kattan gaa ngi fii boobu kattan gaa ngi fii xam nga xale yi ñu su mel ne ñu. woon bi ngeen dóoree wal daan 4-0 taay xam nga dama xobee woon wal daan Ali taay ko woon France Ali ku ñu mel ni wal daan doo leen match de poule 3-0 ngeen ñëw ne loolu deuxième troisième tarxis dëgg la Ali boobu mënu ma ko fàtte dëgg la Ali xam nga loolu ay archive la ya nga xam ne ay archive yu mag la yooyu muy match yu mag yooyu ah, ki ci mel ni ñoom bay fay yiy toog ah, ki ci mel ni ñoom Ibou Ndour ah, ki ci mel ni ñoom Djibi Diouf boo gisee numéro deux di jéem a jouer arrière latéral man maa doon seen idole dañ ma bëggoon kon jàpp naa ni ñooñu maa ngi leen di nuyu de passage di leen ñaanal jàmm di wax ni fi may wax ak yow nag équipe bu kër gi dañuy jël benn carton rouge xale bu mën a football nag Euh, nga xam ne du sax habitude am di gagné mais gis nga public bi ñu ngi koy tàccu di ko encouragé euh, di xam ne c'est la loi du football football mooy am lu mu fay loolu moo war a loolu mais Ali nga jël carton rouge di génn ñëpp di a tàccu Ali loolu am solo la xale bi daal nañ ko bàyyi xel bu baax xam ne football la moo demee noonu euh, attention kon équipe bu kër gi match bi dafay gën a méttiwaat si ñoom parce que su fekkee da nga mat mu xaw a métti soo manqué dafay gën a méttiwaat ci match qualification jàpp naa seen staff ñi nga xam ne ñoo toog ci banc de touche bi am nañu expérience léegi nag li ci des mooy entraîneur bi dafa commencé war a jug commencé liggéey xam ne jël na carton rouge lan la war a def pour mën a gën a piéger équipe bi am yeneen taxawaay kon loolu daal jàpp naa ne aali lu am am solo. di wax tubéy di doon daal ak mënoon taayaatee bal baa ngi daw waa Mbaxal ñi ngi sur le côté gauche il frappe ce ballon mais il a pas réussi à centrer en tout cas quoi qu'on puisse dire ici sur les zones de Mak TV en tout cas vous êtes en train de vivre des moments très très agréables ici au stade municipal de Hann Bel-Air entre ces deux équipes franchement l'ASC Keur jusqu'à son carton rouge a été attention l'ASC Keur est toujours présente franchement l'ASC franchement, a tout donné. L'ASC Kirgui est en train de tout donner, franchement. Face à l'ogre, l'ASC Mahal. Franchement, Mahal, comme je l'ai dit dès le début, équipe bi dañoo xam lu ñu bëgg dañoo am lu ñu bëgg dañoo am lu ñu bëgg man football laay wax am na équipe yi ma fi seetaan jàlluwaale premier match am indi na équipe bu baax a baax a baax une équipe très prête attention Pa Omar non le ballon par le défenseur et il se dégage loin Diallo Waly HLM Maris seetaan nañ match bu neex Waly daan Montagne 6 match bu neex a neex Montagne 6 quoi qu'on puisse dire nous euh, euh, waa Mak TV nee nañ instant bi pour l'instant ASC Montagne 6 moo gàddu moo gàddu moo yoragum raw gàddu gi ci vu mhm. ASC Montagne 6 bu ñuy fubal seen match yi maanaam audience bi muy am man daf maa yéem man ni sama bopp man xaw ma nu mu demee noonu mais seen boo demee si Mak TV nga xool seen vidéo ñoo ëpp vie ci vidéo yëpp mooy bi ñu fubal ak waajur ak bi ñu fubal ak walidaan bi ñu fubal ak waajur mooy numéro un bi fubal ak walidaan mooy numéro deux franchement Montagne 6 chapeau a eux kon boog Feeraay bu dellu see Kasanka dellu si ASC bu mag boobu nga xamante ne ah euh, kii nga xamante ne Maris day ñëwaat Dalifort daal di ñëwaat mais kon Hann Bel-Air chaque année bu ñu demee dañuy jël départemental indiwaat régional fii ci dëkk bi kon boog ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. Euh, euh, Cheikh euh, doomu Alpha Ndiaye depuis Europe moom Italie la nekk wala Espagne Cheikh ñoo ngi lay nuyu la ñaanal yàlla li nga xamante ne sa papa tey amu ko ci football bi yàlla may na ko yow mi doomam vraiment parce que sa papa c' était un très très grand joueur Alpha Ndiaye il a fait les beaux jours de xam-xam Alpha franchement football moom mooy li ñuy wax rek kenn xamul ku ciy tekki dañuy jéem rek mais yàlla moom mi nga xamante ne xam nga ni moo moo mooy séddale moom ku ko neex lay jox. mais Alpha Ndiaye moom daanaan daanaan pire la woon damay dem ba France mais xam nga ku ñu may laaj Alpha Ndiaye. dëgg la dëgg la Ali kooku ah, dafa marqué ah, lu bari bari si jeunesse ah, muy xale bu mënoon football macha allah yàlla may ko ci lu bari bari la nga xam ne may ko ci ay moromam waaye tey professionnel moom suñu borom moo koy def waaye nag xëy na loolu la yàlla nam tey jii doomam mu ngi foofu yàlla na ko yàlla jàppale di wax ni rek. a adduna noonu la di wax ni ah, ñi nga xamante ni. ah, ah waaw waaw kooku moom kenn mënu ko bañ a nuyu parce que il est très bien muy nit ku baax muy Fatou Sarr na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam yëpp maa ngi koy nuyu de passage di wax ni Ali comme noonu rek ma la ko waxee moom moo ci am ah, man na dafa am ay président yi nga xamante ni dañu nekkoon ASC Mbaxal yu ma marqué ku mel ni Jibi Wele yàlla na ko yàlla yërëm ku mel ni Cumbu Jaañ Wele ñii fii tey dañu def lu rëy si ay rëy si Mbaxal ku mel ni Gilaara Diaw xam nga ñooñu tey dañu def lu rëy a rëy si Mbaxal euh, ba ci euh, ñi nga xamante ñoo fi mujjee ay ñoom Abdou Karim Ndiaye ay ñi nga xamante ni euh, tey jii mooy ñoom grand Lippo xam nga ñooñu du ma toog fii muk ñoom Mbaxal di jouer te ñooñu duñ leen tudd parce que Mbaxal ñoom ñoo ñoo def liggéey bu liggéey bu bi yëpp ngay dégg ñoom ñoo ko liggéey kon jàpp naa ne maa ngi leen di ñaanal ku ci mel ni Lippo Ndiaye yàlla na ko yàlla jàmm ku ci mel ni Malang mu nga ca Géejawaay maa ngi koy nga xamante ni moo doon jour bi gënoon dàqoon football ci ASC Mbaxal maa ngi koy ñaanal de passage yàlla na ko yàlla defal jàmm di wax ni nag Ali ñooñu dañ maa marqué ku ci mel ni ñoom Gilaada Jaw ñoom ci mu jaañ wele ñi nga xamante ni ñoom mooy jibi wele ay ay ay président yi nga xamante ni ñoo porté ASC Mbaxal jëlee ko fii indi ko ba fi mu si tey tey ñu ngi ci kër gi ñenn ñi xam nga tey ji nekkatuñ fi ñooñu ñëpp yàlla na yàlla defal jàmm ñi fi nekk ñi fi nekkul yàlla na yàlla yërëm di wax ni ku ci mel ni Aziz Thiongaan ñooñu kenn mun leen fàtte dañu def liggéey bu rëy ñoom jeexul la ñi nga xamante ni tey ñooñu ay mag lañu mënatuñu ñëw vraiment gàcce ngalaama ñoom ah attention à seen mbaxal ñoo yor ballon bi noonu seen ex central mais ñu joxante ko léegi mais ballon bi génn na tuus ay seen mbaxal moo am tuus ali diggante mbaxal ak ñi nga xamante ni moom mooy xale kër gi wax dëgg yàlla yaram daw na ndaxte kër gi nañ leen. Ah, ruus leen te teewul ba léegi ñu ngi téye bu dëgër ñu ngi puus ñu ngi puus ñu ngi puus kon jàpp naa ne ñaari équipe yëpp gàcce ngaalama Ali ñu ngi puus ñu ngi puus ñu ngi puus ñu ngi puus c'est la marque de fabrique de Soukha ñu ngi puus ñu ngi puus moom ku ko dégg la xam ne ni am na borom Soukha moo moom ñu ngi puus ñu ngi puus ñu ngi en tout cas di saluer Yoro Ndiaye de passage l'ancien attaquant de l'ASC Mbaxal qui a signé au Diambar franchement nous lui une très longue carrière, franchement. Yoron l'année dernière, il a fini meilleur joueur, meilleur buteur. Yoron un jeune très talentueux, fils de Baba Ndiaye. Franchement, mu jóge jàmbaar dem signé professionnel te incha allah nañ ko si ndax xam nañ yoroo xale bu am talent kon bokk ñu ngi leen di mais nee naa leen fu ngeen déggee puus ñi ngi puus rek xam leen ni suuxaa ko moom waaw njoo moo ko moom waaw kon bokk match baa ngi daw mbaxal moo de jeu en deuxième période en tout cas ce qui est sûr quand l'ASC Mbaxal vous assistez à un très très bon match avec du rythme, de la vitesse, et va vite. Il est parti, le retrait et le but. Ah, non, non, non, il n'a pas réussi à ah, mettre ce ballon au fond. Il s'est jeté, mais pas assez pour mettre ce ballon au fond de Mais le retrait est arrivé. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse dire, en tout cas, ces jeunes, ils vont vite, ils vont très très très ici municipal de Hann Bel-Air est en de mener un face à l'ASC Keur attention le ballon est dégagé le ballon qui trouve la tête du jeu de la attention gardien et le gardien de l'ASC Mbaxal qui contrôle le gardien de l'ASC Mbaxal très à l'aise il contrôle allez, de l'ASC Mbaxal il contrôle que va-t-il faire il avance il temporise il avance il joue avec son père Dax il joue avec le gardien dañu leen jéem a aspirer ñu génn parce que waa kër gi tamit xam nga dañoo taxaw mais bëgguñu jël bi bëri bal bi dem na yóbbu na ne profondeur dem na attention le nouveau entrant il est beau lu muy def day dem retrait le retrait oh non non non dommage cette fois-ci le ballon n'est pas arrivé en tout cas sur le côté gauche ça ça va vite sur euh, ça va vite euh, qui pousse pour tuer ce match mais laay sekkal gi qui résiste qui résiste et qui continue de résister di jaajëfal mbay ndiir ndeysaan mbay ndiir ndiir l'homme de montagne 6 l'homme des grands moments mbay ndiir ndeysaan oh laay sekkal gi qui qui se cherche mais qui ont du mal à se trouver sur eux euh, à di se day metti Ali mbaxal def na benn changement bu baax parce que dafa génne am i indi Adama Sow gis nga occasion yi ñu ngi commencé ñëw il est rapide il est vite Adama Sow ah si moom moo doon départ de il est vite de man franchement je le dis nit ñi naan ma waaye mais regarde boo génnee changement boo génnee am di ku mel di nga génnee ko indi beneen excentré excentré boobu il va fer mal parce que il va très vite Adama Sow moom mooy doomu kii bi nu mu dënee Idrissa ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm kon boog y a des jeunes franchement prêts talentueux yóbbu na ko da koy indi côté droit non il a joué avec son axe ça joue attention il décale pour l'attaquant il dévie non il a pas réussi à dévier le ballon Le ballon contrôlé par le défenseur de la Sekergi. Ça joue, il donne à son arrière gauche. L'arrière gauche qui cherche une profondeur. L'arrière gauche qui cherche une profondeur. Et le paquet. Oh, ah, le centre de très joli Attention, attention, li mooy du leen may dara te du fi. ñu ñëwuñu fi pour pour maye dara dañoo ñëw pour jël li ñu moom comme ni ñu ko defee woon daaw loolu la message boobu la ASC Mbaxal di véhiculer waaye waa kër gi waxuñu les derniers mots l'ASC Mbaxal kër gi est en train de pousser et le ballon est en six mètres attention souvent Ali ah, gis nga xale bi njombe bi mu def muy ah, Sada gis nga ah, ballon bi Euh, arbitre bi saa yu ko soufflé nañ ko bàyyi mais gis nga daf ko jël euh, tàpp xadaram ba dégagé ko noonu euh, moo tax ñu arbitre bi jox ko carton jaune na moytu deuxième carton bi parce que arbitre bi nekk na arbitre ba nga xamante ni du leen may dara wax dëgg yàlla nii la c'est ça le football ah jàpp naa ni loolu erreur la na ko moytu bu baax a baax nañu ñi nga xamante ni mooy entraîneur yi nañu commencé wax xale ñu gën a dal parce que seen tempérament mu ngi jug bu baax a baax a baax. Euh, jàpp naa ni euh, fi may waxee euh, ci diggante ñi nga xamante ni moom mooy xale yi mbaxal yi ak xale yi kër gi jàpp naa ni fi ñu toll nii mbaxal moo mëneegum benn bal ci dara waaye ñi nga xam mbaxal moo ngi defaat beneen changement di génne numéro 9 di dugal numéro 18 jàpp naa ni ngi indiwaat deuxième attaquant ci kii Paa Omar nag moo génn noonu ki nga xameen mooy Cheikh. Euh, moo ñëw euh, jàpp naa ni muy grand attaquant euh, compétir année bi yëpp ISB kon jàpp naa ne chapeau équipe bu mbaxal bi parce que ay xale yu compétir ñu ngi fi ñëw te jàpp naa lu am solo la jàpp naa ni fi may waxe yow nii équipe bu mbaxal bi lu am solo la ñuy def gis nga saa yu mag ñëwee rek xale day tekki brassard joxe ko kon jàpp naa ne loolu tamit ci yar la ak teggin ah, Cheikh moo war takk takk équipe euh, brassard bi tànkam ngi si terrain bi ah, wax dëgg yàlla xale yi chapeau di wax ne ah, Ali gis nga adduna day dox ñun ñoo fi nekkoon di jouer tey suñuy doom yaa ngi fi ñoo jouer tey ku mel ni doomu Idi doomu suuxa xam nga ainsi suite xam nga nga xamante ni ñun ñoo fi nekkoon football nii la gis nga moo tax équipe bu mbaxal bi dafa mat bàyyi xel ay doom la ya nga xamee ñi fi doon jouer seen doom yi tey doomu Baba Ndiaye ay doomu Suuxa doomu Idrissa ak yeneen xam nga yooyu daal daf may marqué ci équipe bu mbaxal bi ah, ah, di wax ni rek adduna noonu la ah, di wax ni fi may wax ak yow ñu ngi def ay changement équipe bu mbaxal bi mu ngi def ay changement yu ama am solo léegi nag mu ngi commencé nag jéem a aspirer match bi parce que mu ngi indi ay joueurs yi am expérience indi na ki nga xamee mooy Cheikh Pelé léegi mu indiwaat amaat moom la indiwaat euh, gis nga ba tey fi ma doon waxee yow lii amaat bi mu ñëwee Cheikh Pelé dafa tekkiwaat brassard bi tegaat ko ci loxom muy wax ni xale yi euh, am na lu ñu leen wan ni leen rakk a topp mag jàpp naa ni nag euh, waa mbaxal yi ñoo yor ballon bi noonu waaye yaa faute faute muy Cheikh Tidiane moo am foofu benn fóot ci bopp di juri Ali wax dëgg yàlla ku fi ñëw tey sa yaram dina daw ñal nañu yàlla dimbali ba nawetaan bi ñu continuer ko fii jeexalee ko fii ci jàmm ak salaam xale yu ndaw yeeg waajur yeeg mag ñëpp ñu ngi toog ci kër gi diggante terrain bi ak kër gi soriwul mais ñëpp seen xel daal la xam dañuy xale yëpp ñu ngi fii ci biir dëkk bi jàpp naa ni loolu am solo la dañuy daal ñaan yàlla rek mat yi ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim gi àggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamina ba pare Mak TV ñu koy bàyyi xel bu baax baax di ci gën a jàpp parce que fi ñu toll nii suñu yaay yi nga xamante ni tey ñu ngi toog ci euh, biir néeg yi yëpp mënatuñu ñëw seen tànk yi neexatul ma bi ñëw na ñoom ñëpp ngi seetaan match yi kon gàcce ngaalaama Mak TV. bal maa ngi daw waa Mbaxal ñoo ko yor sur le côté gauche attends un sur la tête de l'attaquant c'est pas fini sur le côté droit le centre la tête non pour qui et le ballon est sorti en corner sur l'ASC Mbaxal qui est en train de pousser pour mettre ce deuxième but euh, pour euh, pouvoir euh, tuer ce match mais l'ASC Keur qui est en train de résister va-t-il résister longtemps on sait pas en tout cas à très dur à 10. Ça Attention, le corner sur la tête du joueur de l'ASC qui c'est pas fini. Le ballon repris par le joueur de l'ASC Maral. Il va centrer à nouveau. Il va trouver une tête, la tête du Attention, la frappe ah, le capitaine exemplaire, il a été récompensé par sa politesse. Franchement, comme je ce jeu que j'ai vu en première mi je te J'ai vu, il est en confiance. Il est en train de pousser. L'ASM Mahal était en train de pousser pour tuer ce match. J'ai à peine, j'ai même pas fini. Ils l'ont tué. L'ASM Parce qu'on a vu une équipe de l'ASM Mahal à l'assaut. Et le score est de 2 à municipal de Anne-Belair. Mahal une équipe très organisée. L'ASM Bahal lance un message un message très très très fort l'ASC Mbaxal est en de lancer un message on est on a gagné la coupe l'année on a gagné la coupe l'année dernière cette année suuxa xool bi daa garage fi mu toll nii doom ñoo dugal yéen est-ce que xam nga ni doomu suuxa moo dugal deuxième biu Mbaxal bi Sada doomu suuxa moo dugal deuxième biu Mbaxal bi moo tax fi mu toll nii wax sax mën a dugal ndeysaan il est ému ndeysaan quand un papa regarde son fils jouer au foot, franchement, c'est l'effet que ça fait. Et c'est normal, on le comprend. Franchement, c'est l'effet du père à son fils. Franchement, loolu la nit di ñaan yàlla mag ba gis sa doom nekk mag di football di montrer exemple ñu takkal ko capitaine attention l'excentré ak mën a daw débordé na ko le côté gauche Cheikh Pelé Cheikh Pelé lu mu def oh non non non dérange Cheikh Pelé fallait ramener sa centre en retrait mais le ballon a été contré il est sorti en corner laay seen mbaxal ñëpp a bëgg a dugal ils veulent tous participer à la fête kër gi il faut mu dem ndànk sinon dina jëlaat 3-0 naa mu jël lu ko ëpp parce que mbaxal mi ma gis nii franchement mbaxal mi daa mel ni ñor na yekk ki kese si des dañoo am gan nag gan nag mu Ibrahima Sall nag moom koo ni moom vraiment jàmbaaru dëkk bi la attention le corner le centre la tête mais Amath attention et dommage Oh, la tête de Cheikh Pelé. C'est Cheikh Pelé qui a sa tête. Mais le gardien s'est saisi du ballon. En tout cas, on a joué presque 74 minutes et le score est de 2 à 0. En tout cas mbaxal ku dëgg rek nga moo mën ki fi nekkoon man ji ab mbir mi dafa maa mujj jaaxal xool ko day dem da lay yóbbu da personne Il n'y avait personne en deuxième, poteau. Le défenseur de la sécurité qui se dégage. Le ballon récupéré. Sada, attention, il donne à Amar. qui donne au numéro 8. Le numéro 8 qui perd son ballon. Ça va aller en contre. Ça va aller Le ballon récupéré par le numéro 7. Il est dangereux ce numéro 7. Est défendu. de la part de Sada qui est dans son match. Sada est dans son match aujourd'hui. En tout cas, il maîtrise son sujet. une profondeur. Attention, il laisse passer. Abidou le jeu. Attention, il est défoncé. Et là, jeune gamin, il est formidable. Il nous a ramené des tacles aujourd'hui. Attention, ça joue. Là, qui pousse pour réduire le score. Le numéro Personne qui trouve le défenseur de l'ASM Barral. Euh, amul mënuñ dugal Ibrahima Sall franchement bëgg nañ ko dugal mais match bi ça va à deux cent à l'heure bu jógee fii dem na fee bu jógee fe ñëw na fii attention bal baa ngi daw comme suuxa niñ koy waxee ñaari équipe yi ñu ngi pousse ñu ngi kon nag bàyyi leen ñu a aca pousse leen waaw mbaxal yor bal bi ñu ngi koy jouer à temps à moi franchement ils essaient de construire son entrée amateur lancé Il a loupé son contrôle, mais il a récupéré son ballon. Il profondeur. Oh là là là là là là L'abus de touche a levé son drapeau. L'abus de touche a levé son drapeau. Il est le salle. Nous, il est le salle. Bienvenue sur Mac TV Ibrahima Sall. mais merci beaucoup Ali le PDG de Mac TV Mac Sport mais ñu ngi leen di ziar leen sant leen gërëm mais seen reportage dafa neex moo gën a neex lem quoi war a dugg <laughs> <laughs> mais Ali ñu ngi ni di ñaanal yàlla. vraiment yow ak suñu tonton Suuxa li ngeen di def c'est la première fois mu ngeen toog ci tribune bi dafa neex mais sama xol li ci metti mooy ñu leen war a jàppale nañ leen jàppale la ciy metti ndax li ngeen di def defal leen seen bopp mais ay junni junni nit ngeen di jàppale te ñu ngi seen biir saal man bokk naa sànq laa ko xalaat ba ma toogee sama saal di seetaan ak samay njaboot teg sama ataaye Mak TV moo tax ma déplacé pour ñoom mais dama ne waroon toog pour zappe tey match yi ndax ni ma ko doon seetaanee ak écran bi ak di ko gis ma toogoon kër gi di ko seetaan moo ma daaxal ma ñu terrain bi ndax reportage bi neex na macha allah écran clair na mais gars yi partagé leen lien bi partagé leen lien bi Aliou <laughs> nañu partagé lien bi. Ibrahima Sall ne na ngeen partagé lien bal baa ngi daw waa Mbaxal ñoo ko yow la numéro 17 il va chercher il cherche il cherche oh dommage il n'a pas réussi cette fois-ci il n'a pas réussi attention que dit l'arbitre l'arbitre ne le joue mais non. mais non, l'arbitre a arrêté le match parce qu'il y avait un blessé. Mais il pouvait mettre le ballon en C'était la chose la plus logique parce qu'il a pris des risques. Parce que si c'était un autre arbitre, il pouvait laisser le match continuer. Et franchement, il pouvait encaisser un troisième but. En tout cas, Ibrahima Sall ñoo ngi lay nuyu franchement Ibrahima Sall mi ngi ci euh, but soko bi Ibrahima Sall mi ngi ci rente gaal bi Ibrahima Sall mi ngi ci Hann Bel-Air. xam nga baax. xam nga nit boo baaxee xam ba pare dafa yàgg am yéene ci équipe bu mbaxal bi ah, ci ay pexe ya nga xamante ni suñ ko defee équipe bi dina di dina parce que équipe bu mbaxal bi dafa toll fa nga xam ne poche mënatu ko yor pexe moo ko yor ak ak ak ak def ay projet yu nga xam ne daf koy téye. parce que loolu moom mooy mëbëtam guddeeg bëccëg suba ngoon te yàgg na di ko wax ma gis ko ni mu koy waxee ak ambition bi mu koy waxee ak xol bi fi mu ciy toll ma xamante ni wax dëgg yàlla yàlla ko yàlla jàppale euh, ba mu àggale ay mëbëtam àggale ay projet am yëpp di wax ne équipe doomam nag mu ngi ci équipe sant yàlla bi nga xameen tey xam nga imaginel tey sa doom di joué équipe sant yàlla bi yow nga bokk ko ñu mbaxal dëkk ko ñu mbaxal waaye euh, nga xameen xale bi daanaka fa la juddoo ba pare mu war a foo ji si ay moroom nga ne demal fii ak fee yëpp benn lañu euh, muy prouver prouver bu rëy rëy rëy euh, dañ koy xool rek nii kooku muy xale muy ibba ku mën a football la yàlla ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla dimbali moom it ambition xam naa ni dina mas a ñëw ci équipe ba nga xamante ni ay ay papam ay waajuram yëpp fa la ñu jàpp jàpp naa ni su ñëwee ay waajuram di leen kontaan trop trop trop xam ni ñoom gàcce ngaa laa ma ñoom. Ah, waa Sàlleen waaye gàcce ngaalaame ASC ah, Mbaxal waaye su may waxe yow waa kër gi ñoo yor bi noonu Amath moo récupéré ballon bi Adama Sow la ko jox Adama nu muy def Ada Ada dem Ada mu dem Ada nu muy def mu ngi dem attention Ada il joue bien il joue bien attention Ada wooy jox na ko ko Ada nu muy def mu renverse ko oh. C'est qui oh, Attention au jeu d'école Lassane Mahal wane na mi ngi wane dooleem message foofu premier match 4 deuxième match 3 kan numéro 15 je crois. Mohamed Mohamed Ndiaye. mais ouais il est récompensé il est récompensé Mohamed a été récompensé ndax effort yi mu def yëpp Mbaxal quoi qu'on puisse dire mène 3 buts à 0 face à l'ASC Keur Gui boo gisee ndeysaan Keur Gui franchement fausse relevée fausse relevée waa Mbaxal ils sont en de lancer un message aux autres équipes de la zone 7A tout cas soyez prêts car nous on est prêts premier match 4 deuxième match 3 ASC Mbaxal les du titre les champions en franchement sont en train de montrer de quel point ils se chauffent. dëgg la Ali gis nga équipe Mbaxal bi tey daf may rappeler en 1991 ki nga xam ne mooy Babacar Gueye Diop moom moo doon góolu. Euh, à gauche ñàkk euh, jaa euh, ci ak central bi ñu amoon ci ku mel ni Wës a Daouda Fall à droite ñu amoon Suuxa nga xam ne mooy Abdou Sall au milieu ñoo xamoon Jacques Mendy dafay ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm mooy Papyron Jacques Mendy ñu amoon ki nga xamante ni tey ci milieu terrain bi ñi nga xamante ni tey vraiment ku ci mel ni Iliman maa maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm ñooñu ñëpp. Ah, jaar nañ fii ah, ci attaque bu mbaxal bi ah, ki su mel ni Cheikh Yane Fall Pelé ak ki nga xamante ni mooy Bouna Mbass Baba Ndiaye jour numéro huit loolu dafa marqué tey ci équipe bu mbaxal bi équipe bu mbaxal bi tey wane na xar kanam indi na jëmmam bi nga xamante ni mag ñëpp bàyyi nañ ko fi tey mag ñaa ngi toog ci kër gi ñen ñi eh, yàlla yóbbu na leen tey maa ngi leen di ñaanal ñi fi toog yàlla na yàlla defal jàmm ñi dem yàlla na yàlla yërëm te jégal di wax ne Ali ah, équipe bu kër gi nag wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama ndaxte ay xale yu mën football lañu teewul li leen di mbaxal di mën a yëpp bàyyiwuñu ñu ngi def seen képp laay kàttan waa mbaxal ñoo yor bi noonu ñu ñuy def seex euh, Pelé attention Cheikh Cheikh oh Ali Ali attention kër gi nañ def nànk bañ a jël quatrième bii bi buñ ko jëlee dootul baax attention Ali ñi nga xamante ni. Ah, mooy équipe bu mbaxal bi moo mëneegum ñetti bal ci dara ci jàpp naa ni ah, match bi li si des xawatu la bari lool lool lool di wax ni rek ah, ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax waa na ñu ñëw si supporter seeni doom yi ñu xool ñu superviser équipe yi équipe bu kër gi am na ay xale yu mën a football équipe bu mbaxal bi am na ay xale yu mën a football équipe bu sant yàlla bi am na benn xale ba nga xamante ni Ah, tey nañ ko bàyyi xel ku mën a football la ah, ñooñu nañ leen bàyyi xel ah, ñu jàpp naa ni waa Mbaxal ñu yor ballon bi noonu ñu ngi dem Adama Sow attention mu perte ko rapidement ñu nga xam ne waa kër gi ñoo ko redressé seen côté goos mais y a tous pour l'ASC Mbaxal ASC Mbaxal ñu ngi def ay changement ki nga xamante ni moom mooy Pape Seck moo dugg noonu. sol mara 4 bi euh, moom euh, moo dugg si noonu muy xale bi nga xam mu ngi doog a ñëw si première année première match am muy Pape Seck euh, jàpp naa ni chapeau Pape attention waa mbaxal ñu yor ballon bi noonu ci lay lay nu muy def mu jox ko ki nga xam mooy Amath amaat mu delloo ko lay lay nu muy def mu ngi koy yóbbu ci côté gauche mu jox ko Mbaye Diop Mbaye nu muy def mu delloo ci ka ci amaat Amath Amath nu muy def mu ngi koy jéem a yóbbu ci kanam kanam attention mu jox ko ki nga xamante ni moom xalifa wele xalifa li muy def attention xalifa mu delloowaat ko ci Mbaye Diop ci côté gauche ñu ngi dem attention Mbaye Diop mu joxo ki nga xam ne mooy lëy lëy delloo na ko Mbaye Mbaye joxoon na ko lëy am Ndiaye indi Diop am Diop indi Ndiaye ñu ngi koy joxante ki nga xamante ni moo dugg si loolu muy ah, ah, Tafa Sarr moo dugg ci noonu ah, muy Matar Diaw moo dugg si noonu muy xale bu mën a football. attention ñu ngi koy joxante am Ndiaye indi Diop am Diop indi Ndiaye ñu ngi koy joxante ci côté gauche côté droite di ko yóbbu euh, ci côté mbay moo ko yóbbu noonu attention ñu récupéré ko Cheikh moo ko récupéré Cheikh Pelé nu muy def mu jox ko ki nga xamante ni mooy Matar Matar nu muy def attention Matar mu yóbbu ko ci nga xam ne mooy Pape Seck Pape il joue bien Pape attention Pape nu muy def mu renversé ko euh, mais récupération Ahmed Ahmed Ndiaye Ahmed comment faire Ahmed redressé na ko et bien pour l'ASC Mbaxal fii pour l'ASC Mbagal heureusement Ali heureusement ci porte transversale bi la dal Ali match bi nekk. L'ASC Mbagal qui est de nous faire une démonstration de football ici au stade municipal de Hann Bel-Air franchement quoi qu'on puisse dire chapeau à cette équipe de l'ASC Mbagal ils sont en de nous faire une démonstration de football ils sont en de montrer que faites gaffe à cette équipe de l'ASC Mbagal équipe bi. équipe bu pare la équipe bi bu mag la franchement xoolal ñoo yor bal bi noonu ñu koy doxal le numéro 17 qui donne au numéro 6 Amath ñu koy présenté su ko waa kër gi ils sont dépassés par les événements franchement ils ont pas démérité déjà à 11 c'était dur mais à 10 day gën a métti mais nag waa kër gi ndeysaan ndeysaan waa kër gi waa gi waa kër En tout cas, quoi qu'on puisse dire. 6 4 Aïe là, aïe là waa Mbaxal, il passe à 10. Mais waa kër gi bàyyiwuñ leen ci bàyyiwuñ leen ci nangu bal baa ngi dem waa Mbaxal ñoo ko récupéré noonu. Attention le ballon récupéré par le numéro 6, le numéro 8. Attention, ils vont aller en contre. numéro 8, la frappe. Attention, il donne à Attention, Cher qui frappe, qui enroule. Et le ballon est sorti à 6 mètres. Cher, euh, il faut qu'il essaie de marquer un but pour se mettre en confiance. Ça va lui faire énormément de bien l'attaquant. Arbitre bi sifflé na lu xew. Changement, la Kër Gui. Ñu ngi dugal benn joueur, le numéro 3 qui va sortir et laisser sa place au numéro En tout cas. En tout cas, on a joué 86 minutes de jeu du soccer. Non, euh, fini. Euh, le match est fini. di vous rappeler nag tournoi bi soccer dina am incha la léegi bu ñu amee emploi du temps rek na ngeen ko dugalal incha allah fii ak semaine prochaine comme ça ngeen xam ni bi soccer tamit day am fii ci Hann Bel-Air franchement laay see Mbaxal boo gagné tey jii sur le score de trois buts à zéro franchement kon kër gi moom ñaari génn ñu génn yëpp ñett la jël kër gi moom franchement qualification bi dina tax suuf trop waaw parce que dernier match bi moom mbooloo am te mbooloo bu ñëwee tamit day ñëw daal di jéem a indi trois zéro moom tamit kon bokk nañ ci yéen kontaan nañ ci ami internet ñëpp franchement bonne continuation merci à vous sur tey gisoo sama waa lim ñu defal leen dañuy woon dañuy won internet yi mais internet yi kenn amul seen fay. xam nga moom moom mooy continuation à vous caméraman bi gën a aay ci zone non amul morom macha allah. kii naanaan la. non foog mu dem Paris stage ñëwaat. non dañ ko yóbbu kii day dem soobee yàlla. foog mu yóbbu ko moom Maasu dañuy dem. Ah Maasu Maasu kaa toog ah nii ah mais Maasu dafa ma ñëw ñu gis ko. kon boobu waa Mak TV ñu ngi nii. merci a vous franchement on a passé de très bons moments ici. Mm-hmm. pour ce deuxième match on s'est pas ennuyé du franchement. on s'est pas ennuyé merci Soukho franchement on a vécu de bons moments à Hann Bel-Air ni ngeen koy waxee rek la lépp xew ci yar ak teggin ci discipline ku gagné kontaan le muñ merci à l'ASC Keur Gui ils sont très très fair play franchement ils ont perdu trois buts à zéro xam nañu toog nañ mais du ñu def dara dañuy wane yar wane teggin daal di ñibbi ndànk kon boog chapeau à l'ASC Keur Gui félicitations à l'ASC Mbaxal mais chapeau à l'ASC Keur Gui pour ce geste de fair play qu'ils sont en dëgg la Ali xam nga loolu yàgg naa koy wax ci ay Keur bi jàpp naa ne équipe la bu nga xamee ne équipe bu am yar lañu am nañu teggin c'est ça le football football moo gagné tey yaraax moo gagné waaye football moo gagné Ali daal lu mënte am mooy xale yi nañu compétir football compétition la parce que boo compétir boo ñëwee fii dafay métti gis nga équipe bu mbaxal bi ku ñëw rek da ngay gis ni moo gën a baax parce que compétition moo parce que ñi gën a mag ñu ngi compétir ñi gën a ndaw ñu ngi compétir te ñoom ñëpp ay xale lañu ay naataango lañu jàpp naa ñi loolu lu am solo la ah, chapeau Mak TV di nuyu waa Yarax yëpp di sant waaye Yarax yëpp jërë ngeen jëf. Pour programmer là les autres matchs qui vont arriver nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne euh, sur notre euh, page Facebook Mak TV bu ngeen fa demee page yëpp da koy gis franchement bu ngeen tamit nañ leen ko dugalal gars yi publier ko mais bu ngeen gis programme bi dem leen suñu page Facebook Mak TV la chaîne des grands moments Mak TV la chaîne des grands moments à la prochaine incha allah